alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika hum almuhtadun assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ñuy seetaan ànd ak di ñu déglu ñu ngi leen di njëkk di jéggalu trente minutes yi nga xam ne moo tege ci waxtu wi ñu waxante woon maa nekkoon ci ay itteeki xat-xat rek fa tabaarakallaahu ba waxtu yi kon du suñu tayeef du suñu sago du lu ñu préféré it ba tax ñu am tardement bu toll ni trente minutes du lépp la kenn mënta wax rek tabaarkal na moo tax nag ñu ngi ciy jéggalu ndax mawlaaye cheikh alxaaji abdul aziz radiallahu taala an moo daan wax ni su nit ñi toogee di la xaar mu ne ba nga tardé mu ne soo ñëwee na nga am sincérité wax leen ci loo nekkoon mu ne moo gën nga ñëw rek ne muut mel ni da nga yeeyoo nit ñi di la xaar kon ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax ano encore ci beneen yoon ñu ngi ci balo ñëpp ak ndax xaar dafa métti xaar dafa métti xaar dafa métti kon ñu ngi koy jéggalu ñëpp di nuyu bu baax ànd ak di ndokkeel suñu architecte bu baax bi yàlla alxaaji Sàmba Xari Fall tabaarakallahu ak njobootam gi ci France yëpp ku ñëw ci zawiya bi rek li ngay njëkk a laaj mooy kan mooy sa architecte ak kan mooy ko liggéey moo tax toujours damay wax ne marketing nit moo koy defal boppam am na autorité yu fi ñëw yàggul rek matagul ñetti fan biñ ñëwee visité ko dañ ne kan mooy sa architecte kon alaaji Sàmba xarit dëkkandoor la soppe la dëkkaale la xarit la ñu ngi koy sant di ko gërëm encore une fois ci yéene bu sell bi mu am bi réaliser ko di ci profito di ndokkeelaale di nuyu Oustaz Alioune Badara Ndiaye yi ñu ngi koy ndokkeel moom it ci bàyyi xel gi mu ñuy bàyyi xel bu baax di borom xam di borom xam-xam di yarkat kon Oustaz Alioune Badara ñu ngi lay nuyu di la ziyaara ak mboolem kilifa yi nga nekkal ak soppe yi xarit yi di ndokkeelati alxaaji imam Moussa Gueye ci waxtaan wu yi wi nga xam ne def na ko léegi jaare ci moom ndokkeel alxaaji Muhammad imam Muhammad Lamine Diop te di ko xaar suba incha allah kan na am émission hmm? mardi incha allahu taala ci koor gi ah di wax ne imam Moussa ñu ngi koy santati di ko gërëm dinañ ci ñëw sax ndax am na fenêtre yu mu ubbi yoo xam ne bëgg naa ci laal tuuti balaa ñuy dugg ci thème bi yoon ci yàlla musaa bi nag dama amoon yéene yeggali ko tey waaye gannaaw tardé nañu trente minutes te xam naa li ci des xaw na takk tuuti damay bàyyi ba àjjuma bii di ñëw comme dinañu fekk ci koor te imam Abdoulahi Fall bu Seeraas moo aye te moom maa koy tànnal tem ma tànn tem boobu muy yeggalee ko xissa yonent yàlla Moussa bi alayhi salaatu wassalaam kon ñu ngi ciy jox ñëpp rendez-vous àjjuma waaye démarrage u gi dina tàmbali talaata ak imam la min Diop ci midi incha allahu àllarba talaata ci midi talaata moo di mardi à midi imam la Lamine Diop mooy tàmbali waxtaan ci koor gi incha ci Cherif Dabakh TV di wax ne imam Moussa ñu ngi koy ndokkeel di ndokkeel ajaratu ala ajaratu Kumba Caam di ko sant di ko gërëm di wax ne imaam déglu naa kàddoom yëpp incha allah bu ma noppee fii rek daañu ko woo waxtaanee li nga xam ne yëpp junj na ko te al isharatu takfi li man aqal junj doy na boroom xel la ma ci gën a neex nag alxaaji Idrissa jàlloo bi nga xam ne moo ko yóbbante ci man ma di ko xamal ne tey jamono rek wax na dëgg géej ne ñu gisee bi soxnaam génnee àddina te soxnaam goro la ci man ci lañ géej a gisee waaye alxaaji sa Diallo xam na ne man incha allah maa nga fa ma ne woon mook alaaji Kabir Kan sama maam xam nañ ne maa nga fa ma ne woon fàttewu ma mukk suñu yoonu Kawlax ya ca kaneen àndandoor di jóge ndakaar ak imam Moussa Gueye alaaji Kabir Kan alaaji Idrissa Diallo di dem kaneen def fa sem def fa weekend bi ñibbi siwaat eh, di fa def ay dawaayir ay daayira boromi xam-xam yi di fa daje ñoom pap pap moomu leen woykat bu ku mën a woy la yooyu yëpp fàttewu ma ko waaye jamono mooy yegg foo xam ne rek ah eh, dalay not eh, di dox doxin woo xam ne dootoo ca mën dara loolu rek la waaye alaaji Idrissa yoo xam nga ne ci man nga bokk mayit ci yow laa bokk noonu kadhalika alaaji kabiru kan Cheikh Ahmad Tidiane kan sama maam bu alaaji Ousmane kan bu maam Abdou Hamid kan ñun ñii ñoo daan àndandoor di dem ca Kaolack ak imam Moussa Guèye loolu nag dara jógu fi ba tey insha allah di wax ne aaya bi ma ubbee yàlla wax ne danaa leen di nattu wala nabluwannakum géej naa ne danaa leen nattu bi shay'in ci mbir mu mën a doon baatu shay bu ko yàlla waxee rek mën na lu nekk mën na jóge fu ne mën na doon lu ne baatu sey moo tax yàlla daf ñu jekku nim ñu jekkoo ñun jekkoo wuñ ko boolu ceeb bi ñu tiim ndax boolu ceeb bi nga tiim léeg-léeg nga yax jam la wala nga fot waaye yàlla ni mu ñu sëppoo jekkuñu dafa ëpp ndax moo ñu bind kon moo wax ne wala nabluwannakum géej naa ne danaa leen nattu bi in ci mbir mu mën a doon tem tem soob ma man yàlla ñu ne ko la minal xaw fi mu ne ci am tiit danaa leen nattoo ngeen nekk fi rek du ngeen am sécurité du ngeen am stabilité ngeen di tiit fu ngeen toll te loolu am na booy génn sa kër yaa ngi naan mbaa duñ ma agressé mbaa mbaa mbaa mbaa waaw bi shay'in minal xaw fi mu ne wal juu'i dinaa leen nattoo xiif loolu it boo koy wax ci réew mi sax dañuy foog ne dangay ngay mais am na waaw añ reer ndékki ñi ko fiy def bariwul benn repas par jour moo ëpp te yàlla na la yàlla umpale yenn repas yi da ngay yéemu ci yàlla sax nu ko nit mën a lekkee fii ci ndakaaru nag laa wax waxuma kaw ga de kaw ga sax ñoo ñu ëpp lekk yu neex xamuloo fi mu ne ndax kaw ga am na ñu cere te cere dara dàq ko ci àddina maa ngi koy wax googo mbay keroog rek tabarkal na di suñu soxna di suñu soppe <coughs> ma ne ko cere nit ñi xamuñ ne ci lekk yi ëpp valeur cere ci la bokk kow gi ñooñu dàq lu ñuy lekk fi mu ne ñoom ko ci lekkul cere ceeb ngay lekk wala fonde waaw kañ waaye ndakaaru gii laa wax am na fi ñu xiif ñoo xam ne boo demee ba yegg ci la ñuy lekk danga nga naan lii mënta nekk wolof nag moo ne li gor di dundee yàlla bu ko noonam xam yow moo tax yàlla ne bi shay'in min al xawfi wal juu'i mu ne ak xiif danaa leen ko nattoo wa naqsin min al amwaali danaa leen nattoo seen alal di wàññeeku wala ma dindi barke bi léegi ku mel ni abu aj day am salaire bu baax waaye weer dee mu fayeeku naan dañ maa tafu wala fu ma jaar te fekk moo ko dépensé te mag ñi bu njëkk ku ciy fayeeku cinquante mille dana ci yor fukki kër ci benn cinquante mille bi léegi dangay ngay fayeeku un million weer dee nga dar sa bopp naan un million bi mën ta faj samay soxla kon yàlla dindi na barke mi na lamwaali mu ne waaye nag walan fu si danaa leen nattu it ci seen bakkan yi ngeen di dee wala ngeen di feebar dee gu bari mooy lii tey bër bu set ñu tàggee la fanweeri nit ngay xalaat nawey def ba jaale ji leen di nga gis ku kimile sax am boru <laughs> boru njaal sama boru njaal yi xaw ma nu ma koy def yooyu yépp yàlla ne maa leen koy nattoo was samaraati mu ne ak seen gàncax seen mbeyteef ma nattu leen lu ngeen bay du ñor wala su ñoree it du barke fa tabaarakallaahu mu ne waaye bu boobaa nag man yàlla lu ma teg sama jaam dama koy natt ngir yéegi ko mu ne wa bassiri na nga bégal assaabirina muñkat yi ña ko muñ bam leen dale nekk ñu fa di jàmbat waaye dañ doon wax naan xaalu dañuy wax naan inna naka ñun ñii lii dal lillaahi aji sax lañ ñeel buur bi ñuy wax yàlla wa inna ñun ñii lii dal ak lu mën a doon ilayhi fa yàlla raaji'uuna la ñuy dellu suñ borom nee na yonent bi ki wax lii nag ulaa'ika ñii wax lii ñeel na leen te warlul naa leen alayhim ca ñoom salawaatun yërmande min rabbihim bu fa seen borom wa rahmatun ak njéggal salawaatun yërmande wa rahmatun ak njéggal salawaat dana firi yërmande dana firi ñaan dana firi julli yëpp salaat daf koy firi dana salaat dana firi ñaan dana firi yërmande dana firi julli ulaika alayhim salawaatun min rabbihim ñooñu nga xam ne dañuy delloo seen bopp seen borom subhanahu wa yàlla ne warlul naa leen sama yërmande ak sama njëggal bu tukkee ci man yàlla min rabbihim warxama ñu ne ko lu tax mu ne wa ulaayika ñu gi wax wax ju rafetee nii hum ñoom almuhtaduuna ñooy ñi jub waaw waaye nekk fi naa woy sama ndey fu ma jëm woy sama ndey torox naa foo jëm fu dut fi nga jógee woon rek jëmoo fen laa man jaa wala mal jaa illaa ilayhi ci yàlla rek la ñuy dem li tax ma ubbee ko nag dafa am mbokk mu sës ci man rek di kilifa ci réew mi mu di le doyen juge sàmba Sall muy sama cousin direct Sénégal da du toog di wax te nit ñi booy wax du ñu xam ñëpp a bokk Sénégal ñëpp a bokk te ma am lu ma jaaxal ci réew mi bu njëkk euh, nit day génn àddina ñëpp fàtte lépp yërëm ko waaye léegi nit day génn àddina ñu di ko ndokk di ko ndokk na ñaw walla xamoon naa ko waaye mosu fi jóg nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ jéemee jéem ci moom lu ne mënuñu yàlla ne wallaahu yaasimuka min annaas yàlla ne ko lu mën a xew toogal rek man maa lay watt ci nit ñi bañ demee ba jaaxle ba jaaxle alaaji ma lay xam nga lu ñu wax muñal leen ko rek léegi mu dee ñu ñëpp ñu am jàmm yàlla ne ko bul tontu de bàyyil ma tontun la innaka mayitun wax nañ dëgg dinga nga dee de waaye innahum naka ñoom ñooñu di la ko wax mayituuna ñoom it daañu dee summa topp innakum yow ñoom ñooñu yowmal qiyaamati bés penc tax tasimuuna ñu nekk fa di xul di xuloo alquran nag lay wax te gis nga réew mi ñëpp a bokk moo tax il faut fait très attention ci yenn kàddu yi ma ciy profitoo nag di sant ñaar Guy Marius Sagna ak Walfadjri Walfadjri seetaan naa ñu def ci moom reportage bu am solo te lépp di dëgg gis nga journaliste jàngaluma leen seen métier mais balaa ngay wax ci nit da ngay dem nga def investigation ca ña ko xam te bokk ak moom nga door a publier wala nga door a wax wala nga doora a mboole média yëpp nag wal yi laa gis ñu def ci moom benn reportage bu am solo te lañ ca wax yëpp dëgg la fa tabaraka allahu ahsanul xaaliqin gis nga Ousmane Sonko bii ñuy wax xamuñu ne Samba Sall mbokkam la est-ce que moom Sonko ci boppam sax xam na ko Guy Marius moom li mu wax dëgg la kam cité muy Seynabou juuf sama doomu nijaay la maa ko maye fii ci zawiya bi laa ko maye fii maa ko mayee fii ci zawiya bi mu dem sëyi ca France euh, niñ koy waxee waxeeti mu dem sëyi France fii lañ ko mayee ci zawiya bi ndax moo gii marisa ñu ñoo bokkoon di liggéeyee PCC yi te man mii maa ko yóbbuwoon PCC yi jaare ko ci sama soxna ak sama jarbaat bu fa nekk ñu koy wax Kiné Touré fa tabaarakallaahu ndem gii mari Sagna bi nga xam ne bokkuñu diine moo mën a seede seede bu rafet waaye waaye ñun ñu bokk diine nuñ waroon a def ñun ñi bokk diine nuñ waroon a def li tax ma ne mbokkam la ndax sa mbokk jabar sa mbokk la dëgg la wala du dëgg sa mbokk jabar sa mbokk la te sàmba sàll mbokk soxnaay Ousmane Sonko la ñu déglu bu baax soxna su ñuy yox maire ñimma siise ca sookoon ñimma siise ca sookoon moo jur ku ñuy wax faat ba faat ba santul ba jamanka la sant jëkkëram moo santoon ba ñu naan faat ba waaye ñi ko xam ñëpp santul ba jamanka la sant faat ba boobu moo jur daba kamara daba kamara moo jur soxnaay Ousmane Sonko ñimma siise ñoo bokk ak moom amayey sa ak biram ñun man mii di wax képp ku sant Juuf te nekk Sokone bu la ama yey sa jurut Birama la jur ama yey sa ak Biram ñoo bokk ndey ak baay ku nekk Sokone rek sant Juuf bokk ci famille Njuufeen bu la ama yey sa jurut rek Birama la jur ama yey sa ak Biram ñoo bokk ndey ak baay leneen xaj na fi leneen xaj na fi nit ñi dañ leen waxul li xew rek waaye buy gëm naa ne buñ leen waxoon li xew yi xew yëpp du am ma seedeel ko nag balaa may wéy moom Samba Sall ñoo bokk benn kër guñ yaroo maag moom maa daan yenu añ di ko yóbbul maamam nañ déglu bu baax li may wax maam maan fay mooy maamam Samba à l'âge de un la yaayam génn àddina à l'âge de sept la baayam génn àddina sama maam yar ko muy maam maan fay maa ko daan yóbbul añ moom maam maan man ñaari maam lañu woon maam maan fay ak maam may ca ndemeen su ma ko yóbbuwul sama nijaay bële ca Italie di Tom Diouf wala Basiru juuf ñoo ko yóbbu dañ ko daan séddoo kii yóbbu añu maam maan fay kii yóbbu añu maam may ja moo ko alaaji Amad dem ñoo bokk ñoo daan yóbbu séddoo di yóbbu añ yi ba bés maam Cheikhu yal na ko yàlla yërëm moo woo maam Saaba dem ak maam Kumba Ndaama Mbóoj moom lañ tuddee Kumba Fay mii nga xam ne moom laa war a defal premier samedi ci koor gi ca Mariste moom lañ ko tuddee moo jur ndeyam muy sama tante bi gaañu nii faatu juuf maam Cheikhu woo leen ne leen bu ma sañoon dootu leen yoon yónni Chérif Ibrahima muy yóbbu añ yéen a ngi koy def waaye neexuma keroog laa gëj yóbbu añ ndax mag ñi ni ñu fonkee deretu yonent bi ndekete sama man dama ci sawaroon xam nga lu tax su ma mosaan yóbbu añ maam maan may ma fukki dërëm wala ñaar fukk maam may moom gëmeewu ma yàlla su ma demee bu ma dana ma may xaalis may ma mburu gunge ma ba ca bunt ba man loolaa taxoon ma gën a sawar ci yóbbu añ yi waaye keroog sama maam Cheikh xañ ma ko mag ñi dañ bëgg lu baax bëgg ku baax ñun rek ñoo fi des ñun ndaw yi di iñ iñ iñ iñ xam ni kenn xamut lan la kenn kenn kenn xamut lan la te yow li ngay iñ iñ yi buñ ko tegoon ci sa loxo yi doo ko mën a jëriñoo li alaaji ma silla kan di wax mu ne looy xaccu loo yëkkati ñu xaccoo koog yow te soo leen ko bàyyee ñu wàcc ko alaaji ma silla nee na loo yëkkati ñu xaccoo koog yow te soo leen ko bàyyee ñu wëccu mu ne soo ne yàcc ñu ree la soo góor góorloo ñu xeex la alaaji ma sillakan bu baax bii moo koy wax te loolu yépp dëgg la kon ñun ñoo bokk suñu mbokk ñun senegal kenn mënu fi xas kenn gis nga senegal koo xas sa bopp nga xas koo dóor sa bopp nga dóor kon nañuy waxlante li yàlla wax wa qulu linnaasi xusnan suñ borom wax na ci téeréem bu tedd bii ne waqulu dee leen wax li naa si ñeel nit ñi waxul jullit ñi de waxul waqulu lil muminina laa lil tijaaniyina wala xaadiriyina wala laayeniyina wala ibaadu rahman wala fala wala wala wala sëñ Abdul Ahad mu baax male moo daan wax ni naas de mooy ko bopp bi féetee kow tànk yi féetee suuf kooku la yàlla wax ne nanga koo ormaal yàlla ne suñ borom ne waqulu dee leen wax li naasi ñeel nit ñi xusnan wax ju rafet daf ko bañ tan tanwin ko lee woon ne wax bu rafet baax na lam ca teg rek moo la koy woon wa aqimu ngeen taxawal asalaata julli wa atu ngeen joxe azakata azaka ndem am ngeen ko ni koy imaam Moussa waxee léegi loo ciy déggee dàq la julli julli kaata dàq woor weeru koor wii di ñëw te sa làmmeñ wi teggi woo ko ci deru gor yi loo jaamu yàlla yàlla jël ko séddalee ko loolu nag dara jaru ko Serigne Cheikh si nee na sawar làmmeñ jaru luñ lay dumaa ëllëg waaw sawar làmmeñ jaru ko senegal ñun ñëpp a bokk ma di ko seedeel sàmba bii jullit xaqan la waxtu jullitu ko raw jàpp na yit tariqa Cheikh Seyd Ahmad Tidiane dans les normes man mii maa ko waroon jullee man ndax sama relation ak moom waaye contexte yi mayewu ko ndax suñ kër Sokone Savanel moom fi maamam dëkkoon maam maan sama maam Cheikhu moom ko toxoo fa ñëw jënd Savanel dëkk fa bàyyi fa maamam moom sàmba Sall bi maam maan fay mook jàkka ji biram juuf tabax ñoo jàkkaar la suñ kër sookoon sama maam bi mu demee ba mënatul dem jàkka fajar ci kër gi boo reppee ba yeewu woo julli foofu fajar moom àddina tukki ne ci sa kaw benn doo ndékki ba pare da lay nga ñëw moom fi mu toog ci peron bi ñëpp julli ba pare yow dinga julli juróomi julli te danga ciy boole fajar de da ngay julli ñaari rakkay fajar mu ne la waaw suba juróom nga julli juróomi suba mu ne la tegaat ci eh, ba avant juróomi suba yi da julli juróomi ñaari rakkay fajar teg ci juróomi julli suba te boo gaawalee julli gi mu ne la on recommence maam Cheikh man mii la chargé woon may dugg ci néeg yi di yeete man maa daan yeete buñ julliwaan ba noppi ku julliwut yetam wi lay jël ne ma kaay nga wan ma ñi julliwut waali juuf bii gaañu moom it barki démb di sama doomu nijaay moom it yal na ko yàlla yërëm bokkoon na ci ñi ma daan gën di soxore man ndax moom toujours biddanti rek su ma ñëwaan ba fekk ko muy nelaw mane maam Cheikh waale ngi nii bopp baa ngi nii bu xàccee yet wi ba dóor moo tax léeg-léeg da nga daan gis sax kuy ñëw di julli si allahu akbar fekk yorul njàpp ndax bañ juróomi julli kër googu mooy kër goo xam ne doomu aadama ñemewu fa yeewoo bañ a julli mënta nekk waxtu yu juróom yépp nag ndax sama maam Cheikhu lu ne la koy jaral lu ne na la jur na nga yarluwaan ci kër gi nekkal koo mën doon boo julliwut moom pare na ci yow kon yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana te yéegal ko ci barzaqu Cheikh Seydi Ahmad Tijaani ndax taalibe Cheikh la te ñi mu naataangoolam di liggéey seede nañ ko seede yu am solo euh, Séné Serigne Cheikh nag dafa ne Sénégal mooy réew mu naqare dundee te neex a deewee ndax booy dund woyu nga rek booy dee nag ñu génnee sa yu baax yëpp teg léegi nag defatuñ sax loolu léegi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne ku génn àddina nañuy tudd yu rafetam te bàyyi yu ñaawam yonent bee ko imaam Moussa nag maa ngi koy dégg léegi bi mu koy mu ne man dëggam na moom it ma fekk ko ci may dëggam naa waxu yonent bi waxu yonent bi ku ko gëmut doo jullit ku gëmul waxu yonent bi doo jullit man de gëm naa ko te yonent bi moo wax ne nit bu génnee àddina na ngeen bàyyi yu ñaaw yu ngeen ko xamaloon sax tey wax lu rafetam waaw ana suñ jikko ya Sénégal lii fi xew xamuñ ko woon ana jikko yu rafet yiñ fi fekkoon lépp salfaaje nañ ko indi yu kenn xamut di waxante yu bon boo demee ba amoo lu bon loo wax sax nga sos boo demee ba am amoo lu bon loo wax nga sos te Sénégal so sos moo fi gën a yomb waaw lii ma wax leerul moo xale bi nekk 2STV ma di ko ndokkee laale ndax samdi bi paase lañ ko maye muy maam Njawar Jàllo mook soxnaay Sonko ñoo bokk benn ndey sama jarbaat la ñoo bokk benn ndey ñoom ñaar soxnaay Sonko sama jarbaat la man Sénégal maag ñoom maag ñëpp a bokk ah man lañ Serigne Cheikh doon wax dama métisé ñëpp laa bokkal man fii ñëpp laa bokkal moo tax bu ma déggee innocent yi di wax yu kenn xamul ree damay jàpp sax <laughs> les cons laa bu ma déggee ñuy wax yoo xam ne c'est c'est des cons rek damay rey rek jàpp sama jàpp parce que damay xam ne ñii ay inventeur lañ ah. te spécialisé wu ci nag bu baax a baax a baax a baax ay yooyu amul solo waaw ah. fii Sénégal maa ngi ñëpp a bokk waaw ah. maa ngi ñëpp a bokk ba ci Aram Diagne Moussa Demba bii lëbu yii maa ngi ñoom a bokk moo tax chaque année ma di leen defal seen conférence face Euh, sama maam Mamadou Diouf moo mujj denc yaayu Basirou Diagne mii Marème Diop Serigne Ndakaaru sama maam du juuf moo ko mujj denc man mu ngi dëkkoon gore sama maam man ci patron Ndakaaru yi laa bokk man <laughs> maa la ko wax ah, dama simple nii rek di dof dof lu waaye man kenn gënuma dëkk Dakar kenn gënumaa xam Dakar ah fi laa bokk fii réew mi kenn ëppalewu ma fi kenn ëppalewu ma fi kon nag niñ waxante jàmm rek moo am solo moo am solo yi ci des yëpp amul solo te fii lañ koy bàyyi fii lañ koy bàyyi léegi ñu dem li imam Moussa doon wax léegi ñu dem yàggatul dara waaw ku yóbbu say ndey suul yóbbu sa baay suul wala yóbbu sa jabar suul wala yóbbu sa doom suul war nga xam ne ka nga yóbbu yaa yaa koy fekk ñoom dootuñ ñëw mukk ñun ñooy dem mu wër ne da ngay dem nag waxal lu rafet rek te yonent bi sallallahu alayhi nee na amul lu gën a diis peese ëllëg yowmal qiyam lu dul rafet jikko waaw nee na moo gën a pees moo gën a diis balance ëllëg yowmal qiyam rafet jikko innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq loolu la yonent bi nee na dañ maa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi fi nekkoon sallallahu alayhi yàlla jikko rek lay jàppee nit jikko rek te dina ñëw léegi ci waxtaan yonent yàlla Moussa bi te ñëw na ci sax dégg nañ ko waaw fi ñu tëjee woon keroog rek wane na ne jikko rek moo considéré yàlla jikko lay considéré nit jikko rek waaye ku amul jikko cam wàccal asamaan du dara naawal ci jaww ji boo amul jikko doo dara waaw noo mën a mel nag te am jikko ju jikko ju rafet jikko ju yiw ah nañ dox bi xam kenn du la dab ci mbedd di la foye kon Sénégal am nañ mag ñu baax nañ góorgóorlu léegi lay seetaan journal suñ mbokki murid yi génn xaw ma lu xewati dañ comité bu mag lañ def ne képp kuñ déggati nga saaga seen maam Serigne Touba daañ ko jëflanteeg yow ci nii wala ci naa man nag damay wax ne sénéra boo amee lu muy def nañ lu muy def te di ko wax mooy na censuré ñii saaga waaye général kuy saaga mu bàyyi la kuy wax yiw mu mu tëj sa yëf loolu mooy lan tamit loolu mooy lan ah kon Samba yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko te def na muy wàccuwaayam ak mboole muy jullit nag yam fa fekki fi mashariqil ardi wa magharibiha sigaaran wa kibaaran yal na yàlla abaaina wa ummahatina wa ixwaanina wa asdiqaaina wa asatizatina wa mashaayixina wa ajdaadina wa azwaajina na yàlla may leen njëgal ak yàlla gu mat sëkk ak ajjana gën a dëkk ak rasulullahi ba bañ leen di fekk yal na yéex ak waali juuf moom it sama doomu nijaay la mardi la génn àddina bi passé nii xaw ma mercredi ca kaw Kaolack moom itam waaw te Samba ay mbokkam jéppiwuñ ko sama tante Fatou Diouf bii génn àddina bi problème yi amee wax dëgg yàlla taxaw na ci yónnee sécurité ca kër ga parce que xam nañ ne yaayam la jemi di ko garde te mook sama tante Fatou Diouf dix jours lañ rawante fukki fan te bokkoon na ci yaayam yi mu gënoon a bëgg moom sàmba dix jours la rawanteeg yaayam jooju muy sama yaay Fat juuf fukki fan lañu rawante fa tabarakallahu di jaale it waali banja waaw waali bokkoon na ci ñi ma gënoon a sonal sookoon moom sama doomu nijaay la waaye yal na ko yàlla yërëm waaw moo ko ñoo xam sama beneen doomu nijaay bu ñuy wax Malick Diouf tabarakallahu ñoom su mosaan siiree sama dàll yi ba teg ko ñu tibb suuf ne ma waxal rek dama ciy ci suuf de su ko sama maam Cheikhu ne leen bàyyi leen shérif da ngeen di alku de mu ne balaa ñoo alku alak ko ba pare <laughs> xam nga doomu ni jaay dafa neex ndeysaan yal na yàlla yërëm ko waali waali banja yal na yàlla yërëm ko ak mboolem yi jullit ñu baal ñu àq nag su fekkee wax naa ci lépp loo xam ne rek eh, choqué na nit waaye dama bëgg rek Sénégal ñu def ndànk ñu def ndànk ñun ñëpp ñoo bokk waaw ñun ñëpp ñoo bokk Ousmane Sonko kenn bañu ko Macky Sall kenn bañu ko Idrissa Seck kenn bañu ko xam nga kuñ bañ borom jikko ju bon ak kum mën a doon nag boo ko yoree ñu wax ko ñun bañuñu kenn bañuñu kenn te jullit du bañ nit jikko ja ngay bañ jullit du bañ nit jikko ja ngay bañ ndax boo bañee nit yàlla nga bañ yàlla bind nit kon nag mais jikko nag nit a koy installé boppam moo koy installeel boppam kon yal yàlla def dégg ak topp bi ci des moo di ma jeexale ko ñu dugg ci li imam Moussa Gueye wax ci weeru koor incha allahu bési tey bii buy ñëwaat dana ñu fekk ci biir koor yal nañ ko tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin <coughs> te yàlla nangul ñu lépp luñ ci jaamu ak lépp lu ñu ko ñaan baal ñu bépp bàkkaar bum ñu fekkee ramadaan lool lay firi mooy liy lakk li muy lakk bàkkaar moo tax ñu tuddee ko ramadaan baat bi loolu lay firi day lakk ay bàkkaar kon nag yal na lakk suñuy suñuy bàkkaar yëpp yóbbaale ni ko imaam Moussa Gueye ñaanee sànq rek ci allahuma laka sunt tabaarakal na waaw ndax mbir yëpp mu ci teewul ak yéene innama al bi niyaati wa innama li kulli imri ma jëf yëpp mu ngi aju ci yéene waaw boo yoree sa tàndarma même médicament bi boo koy naan ma ma dimbale nit ñi boo bëggee gaaw a wér même médicament boo koy naan tey jullit jàngal faatiha julli ci yonent bi ne yàlla lii may naan di gëm naa ne mënumaa faj yow yaay faj waaye maa ngi lay ñaan sama wér yal na nga ko jaarale ci lii ci loxol docteur bi ma ko jox yal na nga jaarale sama wér ci moom ne bismillah naan sa garab nga xool jullit bu gëm yàlla laa jullit lu muy def daf koy delloo yàlla ndax yàlla rek am kàttan gis nga yoon ci yàlla Moussa bii ñuy waxtaanee nii dafa feebar feebar bu métti ba fi mu tëdd mënu faa jóg suñ boroom ne ko grenade bi ci sa wanag xoolal li lay faj toujours du la sori mu ne ko grenade bi ci sawa nag waxuma grenade grenade lacrymogène de grenade bii sax dañ koy lekk waaw kay mu ne ko grenade bi ci sawa nag demal nga dagg ci benn doom lekk ko yoon yonent yàlla Moussa dagg ko xar ko lekk ko juróom-ñaari at feebar bi ñëwaat même feebar mu waaxu ci grenade bi rek dagg benn doom ñëw lekk rek feebar bi agité rek monte comme wa kallama allahu Muusa takliman mu ne suñu borom a ah, lu xew yàlla ne ko lu xew mu ne ko bi ma feebaree feebar bii nga yebal ma ci grenade bi ma dagg lekk même feebar bi moo ñëwaat ma dem ci grenaat bi dagg maa ngi nii bëgg a dem àllaaxira suñu borom ne ko damay xool ba xam garab geey faj wala maay faj bu njëkk ba maa la noon demal ca garab ga tey yaa demal sa bopp ca garab ga may seet nag garab gi mooy faj wala man yàlla may faj mu ne ko inni tubtu ilayka tuub naa jëmee ci yow suñ boroom ne ko waaxuwaatal ca garab ga même garab gi mu waaxuwaat ba ca garab ga suñ borom ne ko daggal mu dagg mu ne ko demal lekk ko mu lekk mu ne ko waxuma la juróom-ñaari at waaye ba ngay dee feebar bi dootu la dal ah médicament day wéral waaye yàllaay faj moo tax maam Ibrahima mi xam yàlla wa ida maridtu fa huwa yashfii nii la su ma feebaree dama ne yàlla may faj alaaji bu saaxo rahmatullahi moom falaxeeg naa rek ba nim génn àddina nee daal falaxeeg naa si bu ko mënte faj du wér bàyyi bu saaxo rahmatullahi wa radiya kon li imam Moussa wax muy dëgg ku ci yor sa doomu tàndarma <coughs> yéeneel ndax journée lëmm lekkuloo ki la ko tewe may la audience pour nga wax ak moom waaye wax ko loo xam ne c'est concret ciyel sa doomu tàndarma yéene waaye nag ku groupement ba mel ni Sidi moom loolu da moom munu koo xaar moom cafit cax rek la xam yoonam ne ci waaye loo yàkkamti yàkkamti yàkkamti li nga bëgg door a jàng ñaan gi allahumma laka sunt wa bika amant wa ala rizqika aftart faghfir lii maa qaddamtu wa maa axart nga door a sax sa tàndarma naan sa kafe julli sa niñ koy waxee ti timis kon beneen bi ci des nag te imaam laal ko rek dem man moo ma gën a métti li muy wax ne mag du kaf mooy dëgg fi mu ne chaîne télévision yëpp préparé nañ sketch genre théâtre yu bon yi mag woor ba ngoon jot ñu di la tegal ay sketch yoo xam ne tekkewul dara loolu mooy lan te télévision yëpp a koy njëkkalante fi mu ne yàlla noonu saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ñun ñuy saari'u ila sharrin suñ borom na njëkkante leen yiw yi ñun ñuy njëkkante ay musiba te li ma gën a métti ci sketch yooyu diine rek lañuy ñuy foye CNRA bu amee lu muy lu muy censuré ak lu muy supprimer na supprimer yooyu te censuré ko parce que ñu ngi foyee suñ diine ji dëgg la wala du dëgg kuy naafi la ñu teg boolu ndogu mu dagg naafi la bi te boo leen gisee sax dañoo ñàkk xorom façon ñàkk xorom boo xam ne xamuñ sax nu ñuy théâtre théâtre pire ka ko daan def mooy ma xore jegey ak Bible waaye ñii vulgaire soof kenn xamut lu ñuy wax kenn xamut lu ñuy def jàngale wuñ dañuy yàq sketch yi ñuy def xale bu ko gis day foog ne wooru gàlle baax na dëgg la wala dëgg bu yeboon na boo lëgee ñu jógati man faalewu ma ko jóg ci sama ko yéena ko def ma wax ko diine ji kenn waru ñu bàyyi ñu di ko foyee Sénéra boo amee lu muy supprimer na supprimer loolu boo amee lu muy censurer na censurer yooyu nekk di foyee diine ji mooy lan kuy naafi la ñu teg boolu ndogu ku woor ba tàkkusaan dugg ci biir néegam di lekk yooyu mooy boo waxee ñu ne dañuy jàngale du benn dëgg te Sénégal yu ñàkk fayda yooyu rek moo leen neex parce que ña koy def benn nit a leen di woo may leen deux cent mille kii trois cent mille kii cinq cent mille kii un million ñu foog ne la ñuy def baax na te dina ñëw léegi ci waxtaanu yonent yàlla Moussa billaahi aaya bi ñuy jub man mënuma ko jàng te sama xol gi euh, feesut mënta nekk ndax bokk na ci aaya yi gën a triste ci alxuraan ci man bu yoon ci yàlla Moussa bi ak bi daloon yonent bi ca Uhud bañ damm ba ñëm bokk na ci aay yi gën a triste ci man te buñ ci yegsee léegi di ngeen ko xam lii ma Moussa wax mooy dëgg mag du kaf mag du kaf mag du kaf nañ bàyyi pomi waaye nag nañ ci ut solution la tafsir gay ak Chérif Maamin mu baax mii defoon ma présider ko loolu rek a koy faj xam nga nii moo daan am balaa korité di am nga dégg ñu naan diw ca cosaan diw ca yënguleen diw ca nangam diw ca nangam ñu toog ne loolu du ko fi dindi waaraate kese-kese mënu ko fee dindi nañ créé loo xam ne muy tafsir ak Chérif Maamin nañ créé loo xam ne nit ñi daañu fàtte loolu ñu créé spécial korité léegi déggati nga ku ñemee tëgg jouru korité déggatoo ku ko ci defi du am xorom voilà parce que am na loo xam ne boo koy faj da ngay indi dara teg fi malheureusement nag ñun moomuñu télévision yi te télévision yi dafa mel ni yooyu moo leen gënal émission yu ñàkk fayda yooyu moo gën a dox ci télé yi émission yu doyadi yooyu moo gën a dox ci tele yi dafa mel ni nag kon réew mi ñu doyee di ñoo ñu baal màq nag ñu baal màq bu baax a baax a baax a baax te pourtant yeneen ni télé gi fi duñ ko def te seen mbir a ngi dox Touba TV duñ ko def Lamp Fall TV duñ ko def euh, euh, al al Mouridiya TV duñ ko def ah ak Asfiya yi duñ ko def te mu ngi dox mais pourquoi pas mais foog ñi di ñu tegal ay ay sketch yu ñàkk xorom yoo xam ne teg saful neex saful naqari ci lu toll ni weeru koor lu toll ni weeru koor ñu taroon xanaa boog nañ jël ustaas ci diggante boobu ñuy def waxtaan yu gàtt di fàttali nit ñi loolu moo waroon a nekk enregistré ustaas yi moment boobu ñu di leen teg moo daan am RTS bii ñuy saboté looloo fa daan am balaa dog di jot ñu teg Moustapha Guèye ak Imam Ahmad Sànqe ak euh, Ousmane Sarr lakk yëpp ñoom Makhtar Seck lakk yëpp am audience balaa dog di jot danañ teg lakk yëpp ba ci bu ñoom Sidi mbay bi ah Oustaz Sidi Mbaye mi seen bos bi ci lii lu koor xaw ma yooyu yëpp ci nga ko daan dégg waaye léegi yooyu yëpp déggatoo ko sketch yu bon yi rek ngay dégg ba kañ diine ji daal la ñuy foyee waaw diine rek la ñuy foyee waaye leneen loo fi laal seeni borom jóg waaw leneen loo fi laal seeni borom jóg waaye diine moom ñu jeexalee ko foofu xana la Cheikh Al Hadj Omar waxoon al Fuuti li kulli qatilin naihatun yanoxnahu wa laysa ala diini almuhayminu naihu la in kaana ma bilkaffi diinun fa kaasidun wa in ziida raun bacda maddin fa raabixu xoolal ba ko Cheikh Omar waxee ba tey Cheikh El Hadj Omar nee na lu ne am na lu koy jooyal xaqam ba mu des diine waaw mu ne bu dee lii ci loxo yi léegi mooy diine mu ne kon diine lamb na yàqu na mu ne ndax diine la woon te alillahi diinul xaalis yàlla moo am diine ju set ju sell mu ne bu njëkk diinu la woon mu ne ñu dagg nuun nga yokk ci alif muy dinaa ñu yokk ca raa muy dinaarun dërëm ak wurus rekk koo ci jox dërëm ak wurus mu waxal la li nga bëgg waaye diine yàlla ji yoonu kenn nekku ci kon nag te ba ko Cheikh Umar waxee léegi yàgg na ëpp na téeméeri at tey la gën a valable kon nag nañ bàyyi xel bu baax a baax a baax ci xam ne diine du fowukaay te li imam Moussa wax moo di dëgg mag du fo billaay ku ci fo ba dugg bàmmeel li nga xam ne yàlla santaanewul fo waaw ku ci kafit ba dugg bàmmeel di nga xam ne yàlla santaanewul kaf waaw te bàmmeel soriwut mu ngi nii ci suñ wet waaw soriwut mu ngi nii ci suñ wet yal ñu yàlla defal dégg ak topp tey baalu àq ñëpp nag ñu wax ne ñu ngi toll woon ci fii yonent yàlla Muusa xettalee nit ñi ca nag wañ waroon a rey te rendi ko nag wañ waroon a rendi te rendi ko xam naa dina ñu <coughs> seet li gën a gaawati fa tabarakallahu ñu ngi war a dugg si nag ci man ak salwa di nuyu nag ñi fi nekk ñépp alxaaji malay taal bu baax bi bu Cheikh Ibrahim Sall bu imaam Assane Dem bu cheikh cheikh al islam alaaji Ibrahima Niass Baye di nuyu al ustaaz Serigne Souleymane Samb donte yeggseegul ak xaritam doomu ndeyam imaam Mouhamad Lamine Sakho ak seen doomu ndey ustaaz Saliwu Mbeng di nuyu suñu technicien bi tabarakallahu Abdoul Aziz Seck di ko sant di ko gërëm ànd kook Abdou Aziz Diop Thierno Ndoye ak Omar Gueye di nuyu ustaas yi ñuy jàppale ustaas Camara Diaw ustaas Sidi Ahmed mbay tey dafa nekk Morolan moo tax ñëwut di nuyu Pape Lekor di nuyu borom Abbas Ndaw tabarakallahu abu aj di nuyu sama jarbaat bu baax a baax a baax euh, ndongo ñu ngi lay nuyu di la baax bu baax a baax di la yóbbante nuyoo ci sa nijaay di suñu frère di imaamu Thierno Bachirou Mountaga Daha Cheikh Oumar di nuyu nag mbooleem xalif généraux yi ci réew mi yëpp te di leen ndokkeel ci weer wi ñuy dugg si di ñaan yàlla yal na yàlla <coughs> may ñu ñu fekkee ko ak jàmm dugg ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin nañu ko yàlla defal te yal na del si déwén fekkaat ñu fi yal na yàlla def weer wi del si déwén fekkaat ñu fi yal na yàlla def weer wi del si déwén fekkaat ñu fi waaw yàlla buñ ko wutee mukk du ragal dee waaye bëgg defal yàlla dara la rek yal na weer wi del si déwén fekkaat ñu fi léegi nag ñu ñëw ci yonent yàlla Muusa fi nga xamee ni xeetam wi ñaan nañ ko ne ko dañ bëggoon nga may ñu ñaanal ñu sa borom comme yow loo wax yàlla def ko dañ bëggoon nga wax sa borom ne ko suñ bëggatee lekk rek na yi jóge ci kaw ñëw toog ci suñ kanam ñu lekk mu delluwaat yonent yàlla Muusaa ne leen ah man de aw ko waaye yàlla mi ma yónni am na ko yonent yàlla Moussa ñaan ko boromam suñ borom di ko wàccee ñii ne ci asamaan la ñii ne àjjana la ñi wax na jógewul àjjana asamaan la jóge rek ñoo ñu laa àndal man nag damay def li Seydi Hadji Malick daan def Maodo day wax ne boo demee ca miimiya kii wax na lii kii wax na lii kii wax na lii borom xam-xam yi lii lañ wax waaye man Malick ci kii laa ànd te toujours dinaa ko lay nag dafa am boroom xam-xam yu wax ni su doon ñam wi àjjana la jógee duñ alku te dëgg la ndax ñamu àjjana ku ko lekk dootoo alku mukk boobu moom dëgg la ñamu àjjana ku ko lekk dootoo alku mukk cam na yaxyaa yaayam nettali naa ko cam na yaxyaa nee na yaayam dafa gën gis yonent bi tànq ci kaw sara yàqazatan jox ko mu naan keroog la gëjë naan ndox ba ni mu génn àddina quarante ans naanul ndox ah soxna Aïchatu ñu ngi ko denc foofu kon ñii dañ ne ñam la wu doon jóge asamaan rek yàlla tamit lu ko neex def yàlla am na feneen fu dul àjjana di waaw ah, boobu moo mën a nekk nag ndax bu doon ñamu àjjana ñoom duñ alku waaye bañ ko laajee ba mu ñëw ñu weddi dañoo alku yàlla di leen ko wàcceel nag man naag salwa waaw mburoog yàpp mburoog yàpp rek di wàcc mburoog yàpp mburoog yàpp xam nga neex na mooy soos soos moo tax konte konte yëpp di yàkkamti tabaski soos soos <laughs> waaw soos ah soos di wàcc rek bër bu set rek buñ bëggee lekk rek ku nekk fa nga toog fa la la plat di fekk bu ànd ak table ak serviette yu rafet ñu muur ko nga muri lekk sa mburoog soos léeg picc buñ lakk la léeg yàpp buñ lakk bu bu bu bu neex tabaarakallaa nga lekk ba pare ak ànd ak mburu day ànd ak mburu boo boo lekkee beneen alxam ba pare ba muuraat rek da ngay jékki-jékki gis table bi di yéeg bu heure bi jotaatee rek taabal yi ñëwaat ñu tuddee ko nag man na wa salwa mburu ak yàpp yàlla ne leen kuulu lekk leen mi ma ko man maa leen ko wërsëgal mina tayyibaat yi ci yu dagan yi la bokk ah ñu dema dema dem ba ca biir xam nga ak mbaadoolo baaxut ñu ne ko yon ci yàlla Moussa ñu ne mu ne ko lan nasbira ala taamin waahidin ñun daal wenn ñam wii tuux nañu mooy soof nañu waaw soos rek soos rek bër bu set soos bëggatuñ soos yon ci yàlla musa ne leen lu ngeen bëgg ñu ne ko da ngay wax sa borom mu may ñu ñu dugg ci àll bi bay maraîchage di dundee mu ne leen baax yéen a bëgg lu bon yàlla di leen wàccel xéewal wu ni toll ngeen toog fii naan bëggu leen man naag salwa yu soof yi ngeen ko bëgg a jëndi weccee mu ne ca bismillah fad'u lana rabbaka yuxrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa xisaa'iha wa fuumiha wa adasiha wa basaliha fala maraîchage tub jógee mooy mbéyum noor ñu ne ko daal danga bëgg dañ bëgg nga wax sa borom àllu misra bii mooy Égypte su ma nee misra mooy Égypte mu xottil ñu ko defal ñu ci ay ay déeg maanaam maanaam mooy dex gu neex ñu mën di bay soble pomme de terre oignon yooyu yëpp ñu di ko bay pour mën a dunde mu ne leen baax na yéen da ngeen fekk li gën a bon ngeen jëndee ko li gën a baax mu ne ca bismillah ihbitu misran dugg leen biir Égypte fa inna lakum ma saaltum wa duribat alayhimul maskana wa zilla wa baau bi ghadabin min allahi mu ne jëndee ngeen ko torox ak gàcce te jëndee ngeen ko it merum yàlla ñu commencé dugg misra nag di béy waaye xam nga mbéy moom mbéy la tudd léeg nga béy mu dox léeg nga béy mu ñàkk dox ca njaar jaar nag ba weddi yàlla alag leen alkande googu dem na ba yàlla yàgg ñoom ne leen kuunu xiradatan xaasiina nekk leen ay golo dugg ci àll bi moom la Serigne Cheikh Tidiane si doon wax nag mooy vidéo bi ma Kumba ajaa Kumba Caam yónnee woon Serigne Cheikh ne bés dafa toog di waxtaan ak sëñ Babacar si ci mbiru coppi gi yàlla daan soppi nit ñi goloki mbaam xuux kuru kunu xiradatan xaasiina sëriñ cheikh ku mat a bàyyi xel la gis nga wa basiri saabirina alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna wa inna ilayhi rajiun sëriñ cheikh xam nga nu ko firee bégalal ñi nga xam ne bekkoor bi wala ndeegu bari gi wala ñàkk gi laalul seen xol noonu la ko Serigne Cheikh firee moom waaw na bégal ñi nga xam ne bekkoor gi wala deegu bari gi wala walla laalul seen xol ñoom seen physique rek a ko yëg waaye seen xol yëgu ko waaw fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin dama koy teg ngeen dégg ndax nit ñi booy wax dañ naan xëy na sax kii dafa yokk waxu sëriñ bi wala nangam ak nangam waaye sëriñ Cheikh mu ne mu toog ak Serigne Babacar si radiyallahu anhu di ko ci laaj ndax alxuraan dafa bari piri waaye ku dul nitu yàlla nag mënul firi alxuraan déedéet wa maa ya'lamu taawilahu illa allah waaye waraasixuuna fi l-ilm yaquluuna aamana bihi kullun min indi rabbina waaye nag wa maa yadakkaru illa ulul albaab moo tax xam du caaxaan xam-xam du caaxaan de innama yaxsha allahu min ibadihi al boobu rek waroon na tax ñëpp jàngi innama ca dëgg dëgg dëgg yaxsha dana ragal allahu buur yàlla yàllaay wax de innama ca dëgg dëgg lii mbir tey mbir mooy li wér te wér mooy yaxsha dana ragal allahu buur yàlla min ibadihi ci jaamam yi al ulama u yi mu ne jaam ñëpp danañ ma ragal de mu ne waaye borom xam-xam yee ma gën a xam ñoo ma gën a ragal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ci xadis ne annaasu kulluhum halka illa alaalimuuna waalaalimuuna kulluhum halka illa alaamiluuna waalaamiluuna kulluhum halka illa almuxlisuuna waaye walmuxlisuuna ala xatarin adim sallallahu alayhi wasallam ne ñi ñëpp maase nañ alko ba mu des borom xam-xam yi mu ne waaye boroom xam-xam yëpp maase nañ al ko des des des ñiy jëfee seen xam-xam mu ne waay ñiy jëfee seen xam-xam yëpp alku nañ ba des ñiy sellal mu ne waay ñiy sellal ñu ngi ci danger xamuñu ndax yàlla nangu na wala déet wala bu ñëwee ëllëg est-ce que du ko fayee bor ba mu jeex mu ne ñii yàlla nangul sax ñu ngi ci danger ñoom xam nga fan la nit di rëccee uduxuluha bi salaamin aminin te foofu sax Maodo nee na man wooluwuma pexem yàlla falaa yaamanu makrallahi illa al xawma alxaasiroon Seydi Hadji Malick ne foofu sax wóoluwuma mu ne sa tànku càmmoñ bii fekk fekk si wul bu ndeyjoor bi biir àjjana wëññi la weesu falaa yaamanu makrallahi illa al xawma alxaasiroon Seydi Hadji Malick ne kenn du woo mu ne aaya boobu la firi mu ne pexem yàlla nag man man Malick yegg naa ci ba sama tànku ndeyjoor bi bu noon dagaj biir àjjana fekk bu càmmoñ bi fekk siwu ko wóoluwuma pexem yàlla ndax mën na laa waññi waaw parce que am na ñoo xam ne foofu lañ leen di waññi moo tax Maodo wax ko waaw ci bunti àjjana lañ leen di waññi waaw te yàlla ko wax ci alquran waqifuhum wax leen leen ñu taxaw ñu ngi bunti àjjana mais ne leen ñu taxaw innahum na dama leen di laaj benn dernière question yonent bi biñ ko laajee lu waral loolu mu ne mooy ku am njaboot yaroo leen ci diine ba yàlla war leen a mbugal ëllëg ñooy taxaw ne yàlla yaa ngi nii di ma pamti pamte di ma yóbbu jahannama pour mbugal ma te sama ndey sama baay nga ne la di dugg àjjana sama responsabilité ci seen loxo la nekkoon ñu def ma mbalum kaw mbalum suuf lu ma neex neex na leen wàññi wuñ ma ci dara tey nga di leen seetaan ñuy duggi àjjana man nga di ma pamti pamtee di ma yóbbu safara yàlla ni waqifuhum aaye boobu foofu lay doxee ëllëg te lii mooy sabab bi Mawlaaye Cheikh Alhaji Abdou Aziz ba mu koy firi dafa ne mbon weesuwul ne watti ci sa diggi kër sa doom bu jigéen solu jigéen nga ne ko na la fi min wi fekk alaaji Abdou Aziz nee na mbon weesuwul ne watt ci diggi kër sa doom bu jigéen sañse di génn nga ne ko fexeel na la fi min wi fekk diggante fi mu génneeg min wi mënu fee toj dëkk bi mu ne walla góor daagoo ci àll ba waaxu fekk la ci ëtt bi ne la ana Fatmata nga ne ko mu ngi ci biir wéyal jàllal ci biir mu ne koo koy duyus mooy macro piir te yonent bi neen at du yuus ñu ne ko ah, mu ne xetu àjjana sax du ko xeeñ mooy makru yonent bi nee xetu àjjana sax du ko xeeñ te xetu àjjana dina xeeñ doxu cinq cent ans comme nga waroon na jógee fii dem asamaan balaa ngaa départ xetu àjjana dina la alawteku te yonent bi nee na makru xetu àjjana sax du ko xeeñ waxuma ak a dugg alaa jab du teg ci ne ku ne watt ci sa biir kër ne mënaluma njaboot gi dara mu ne dinga ne watt ëllëg ca jahannama te kenn du la fa mënal dara waaw njaboot danga ciy jéem waaw ciy jéem li nga mën la ca des nga bàyyi ak loxol yàlla waaw waaye ne watt ne yasar rek ne mënuma ci dara waaw njabootu kanaara lañ dang leen di jiital nekk ci ginnaaw loolu mooy lan ñun du ñu ay kanaara di ay nit lañ danañ kanaara lañ ñun dañ di kanaara bañ demee bu tollale suñ bopp kanaara lañ torox ñun du ñu ay kanaara ay nit lañ nga naan njobootu kanaara lañ danga leen di jiital rek nekk ci gannaaw loolu mooy dégager sa responsabilité parent yi dañoo démissionné lii la Cheikh Alhaji Abdou Aziz doon wax na ni képp ku ci démissionné boo liggéey di nga ne watt ci jahannama ne kenn lu ci mënal dara mu ne mu ciy waxtaan ak sëriñ Babacar si radiyallahu anhu mu ne sëñ Babacar ne ko yonent yi sax yaakaaroon nañ ne yàlla day soppi nit ñi goloo ki mbaam xuux ndax kuuru kuunu xiradatan xaashiin mu ne waaye du leen soppi golo de mu ne ba yàlla bindee nit ormal na nit ba du ko soppi golo mu ne rawati bi yonent yi feeñee ci seen biir yàlla du du leen soppeeti golo mukk mu ne rawati nag bi yonent yàlla muhammad ñëwee xam nga lu tax doomu aadama jëmmam rek mooy yonent bi jëmmi nit kuy dox mooy muhammad bopp bi mooy miim dënn bi mooy xaa xadam dell bu dee ci ña yàng daara ñooy wax miim xaa miim xadam de xadam dell miim deel bu dee sama classe gi nga xam ne man école arabe laa jaar et man école arabe laa jàngee oustaz bi ma jàngal Abibulaay Kan la tudd mu ngi dëkk fii Mbuur mooy imaamu ratib Grand Mbuur sookoon la ne di denc doomu alaaji Ahmad dem moo ma dalal alif ba ba ma wàcc alxuraan ba mokkal mu dalal ma laxdari dalal ma asmaayu dalal ma duruusul awaliya ma door a dem Banjul dem jàngi 77 door a dem Banjul jàngi anglais <coughs> kon ñi nga xam ne dañ njàng arab ñoom ñooy wax miim parce que njàngum daara ak njàngum arab waxin wi rek moo wuute waaye arab yëpp benn la alifun ba un ta un saa un ña ca école arabe yee ñoo koy wax alif ba ta sa hmm? Hmm? waaw nga ne abajada buñ ne abajada mooy ña ca daara ja alif mooy ña ca école ba fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin kon ñi nga xam ne comme miim mooy bopp bi xadam dell mooy xaa mooy dënn bi ndigg li beneen miim ñaari tànk yi mooy daal xaw ma dégg nañ li ma wax alaaji ma ma kon nit jëmmi yonent bi la yàlla ormal la yonanti bi ba du jël jëmmi yonent bi du ko soppi goloog mbaam mbaam xoo mu ne waaye Serigne Cheikh nee na bi mu ci waxtaanee ak sëñ Babacar mu ne sëñ Babacar si radiyallahu anhu ne ko ëllëg ma mu ne ko li tax yàlla du soppi nit mbaam xoo wala golo mu ne daf lay bàyyi rek boo demee ba yor jikko yi golo mu ne yàlla soxlaatul mu di la soppi golo ndax yor nga jikko ji ba noppi <laughs> mu ne boo demee ba yor golo ba li golo waroon def ci pénc mi léegi yaa koy def ci pénc mi mu ne soxlaatul nag yàlla di la soppi golo soxlaatul parce que yor nga jikko ji ba pare te jikko rek moom laa doon wax léegi jikko rek moo am solo li ci des amul solo fa tabarakallahu kon xam naa ne dama koy jàllale rek ñu ñu ñu déglu ko bu gàtt xam ne inna hmm? ah gisuma ko kon ñu wéy ba ba ma koy gis rek yàlla def ci mbaaxam ci yàlla Moussa jóge fa ñëwaat daanuwaat ci beneen mbooloo ndax moom ay kuréelu kuréel la yoo xam ne bu jógee ci nattu bii rek daanu ci nattu bi bi jógee ci man ak salwa mu duggaat ci beneen cadre boo xam ne balaa muy alak na yàlla di ko sant muy firaw na ca baxru xalsum beneen phénomène jógaat mooy weddi gi gën a tar ñuy rey ay nitam di leen toroxal te amagul ndigalul xeex fayu gis nga jiyaat foo ko dégg moo tax imam Alioune ndaw maa ngi koy gërëm bu baax a baax def na émission keroog balance wal fajiri wal fajiri am nañ émission bu am solo muy balance vraiment ku ma ku ma ku ma estimé la yàlla def mu wax fa wax bu am solo te jihaad ni ko niñ ko waxee tubaab yi ñu ragal ko jihaad tolluwul noonu jihaadu nafs moo ëpp doole waaw jihaadu su ma ëpp doole te nit ñi bàyyiwuñ ci xel nit ñi bàyyiwuñ ci xel mais jihaadu su ma ëpp doole ñu baal ma rek ma ma jàllale waxu Serigne Cheikh bi ngeen dégg ko xam nga yonent yàlla Moussa ak yi ci des sax ku ci ne defewoon woon nga ni bu tooñu nit ëppee yàlla dafay soppi nit ka mu nekk golo te ñun ñëpp loolu lañu foogoon ku nutira datan xasiin ñun ñëpp noonu lañ ko déggee bés ma di ci waxtaan ak Serigne Babacar Sy góor gu bare xam-xam la woon te sopp ko dafa soppoon xam-xam mu ni ma euh, xeetu nit tedd na ci yàlla rawatina bi yonent yi génnee ci ñoom ba àgg fu nga xam ni du leen soppi mukk ñu nekk kon yëpp du nekk transfiguration question comportement rek la nit ki bu fekkee yarul boppam ba fu mu toog bu dee jëfandiku ñu ni jëfandiku bi moog bu golo yem jàppal ni yàlla alak na ko jàppal ni yàlla alak na ko parce que jëfandiku golo doomu aadama bu demee ba di ko def si que yàlla alak na ko nag jarul mu di ko jox genn goloog yépp matu ko waaw matu ko comportement bi rek la ba tax na lu mat a bàyyi xel la maa ngi am benn maam xam ngeen ko ci Tiwaawan Abdourahmane Sow Abdourahmane Sow daf maa wax ni ca Ndar noonu loolu rek laa ci soxla Eh, sa réew mi moo neexul waxe waaye loolu eh, am li Euronews di wax no comment yaakaar naa commentaire amu ci kon aywa loolu mooy di dëgg nit bu demee te yàlla wax na ko ci alquran ulaika kal an'ami bal hum adal suñ borom ne na am na ñoo xam ne ñoo juri kër yee yem mu ne bal li fi nekk hum ñoom sax adal lu ñoo gën a réer julli juri kër yi ndax juri kër yi ci loolu laa leen bind te wàcc nañ ba fekki leen foofu waaw summa radatnaahu asfala saafiliina suufe suufe ba fekki juri kër yi ci seen manin te ngay nit ku ne war na ko jomb waaw war na ko jomb ay mooy li mu wax rek soxlaatul yàlla di la takk defal genn <laughs> déedéet ndax jikko jaa ngi fi ba pare fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin aywa ñu waaxu tuuti bi nga xamee ne nag yonent yàlla Muusa fitna yi tar na mu ñaan boromam ne ko ñii dama bëgg nga mbugal leen gis nga fi ngay xamee mbaaxu yonent bi ne bokk la moo leen gën ñoom ñëpp yonent bi mosul ñaan yàlla ne ko mbugalal sama xeet mosul am au contraire yàlla daf leen di bëgg a mbugal yonent bi taxaw ne ko bu mu am bu mu am mukk mu ne ko lu tax mu ne ko tiil ma ci fa innahum laa na ñoom dañ maa xamut xoola yoon ci yàlla Moussa waaye billaay jamono bii li yoon ci yàlla Moussa di doxal rek a fi baaxoon ndax nit ñi teg-teg gi lañ xam teg-teg gi moom rek lañ xam maa la ko wax jamono yoon ci yàlla Moussa fii rek la baax moo tax ma indi xissa yoon ci yàlla Moussa aywa yoon ci yàlla Moussa bi fitna bi tàngee ba tàng mu ne suñ borom maa ngi lay ñaan képp ku ma gëm bu mu ci bokk nag waaye ku ma gëmul acca premier mbugal bu ci nekk quarante jours la diire xuma la mooy ay teeñ teeñ yi ne sëmb ci seen kaw ñuy wokkatu rek di wokkatu rek guddi wëcc wokkatu guddi wokkatu bëccëg wokkatu guddi wokkatu bëccëg mënuñu fexere ba saafara teeñ yi ba ci Firawna ci boppam teeñ yaa ngi koy bëgg a rey palais bi fees dell ki teeñ xam nga teeñ ni bone bonee teeñ moo gën a bon matt te day day toroxal nit fa nga toog rek ngay wokkatu di di jël di toj te moom du tax ñu jeex Firawna yónnee ci moom du recevoir mu de waaye day yónnee ci moom ne ko dem leen ngeen ne ko Haaroona lay yor waaw Qaaroon Qaaroon Haaroon astaghfirullah Qaaroona lay yi wala mu yónni Haamaan Haamaan la ëpp lu muy yoon ci yoon yoonu ci yàlla Moussa ne ko demal ne Moussa lii mu ñu teg bu ko teggee rek ñu gëm ko ci yàlla Moussa tànkam lu 40 jours bañ sonn mu ne yàlla teggi ko fi mu naan yàlla teggi ko automatiquement la ko yàlla di teggi dootuñ gis benn teeñ moom suñ mag ñi am nañ ko de kullu waliyin ala qadamil mursal yonent boo gis mu ngi teg tànku ndëggam ci ndëggu yonent wali yu boo gis mu ngi teg tànkam ci ndëggu yonent gis nga lii maam Siisu Ture amoon na ko fii ci Fass Ture nettali naa ko fi mooy jur sëñ Aadi Ture mu jur xalifaam bu baax bii mu diir ku ragal yàlla mu diir ku ragal yàlla mag ñi fi ragal yàlla des fi ci la bokk mooy xalifa sëñ Aadi Ture tey waaw bëgg ma lool doonte gisante wuñ bëgg sama soxna lool ba ndeyale ko te mën naa jur sama soxna bi nekk Sacré Cœur ba ndeyale ko soxnaam mu mucc man mag ñi dañ maa bëgg de mu mucc soxna si bu yàggul la mucc mu ne ko bu doon jigéen yow laa koy tuddee li muy góor rek a tax mu diir te ñëpp xam nañ mu diir ci ñàkk caaxaanam waaye daf ma bëgg bëgg bëgg sama soxna ba gëmeewu ko yàlla niñ bañee aadam mu ndeyale soxnaam sama soxna man lépp lu muy jënd sama soxnaay dem jënd ko bu ñëwee dakaar moom lay njëkk a woo téléphone ñëpp la jaaxal sax ñëpp àddina bi yëpp la jaaxal mudir ku xam mudir laa wax de bii bu sëñ Hadi Touré bii xalifaam bi yal na fi yàgg te wér maamoom nag maam Siisu Touré Cheikh Al Hadj Abdou moo ko nettali mu ne ay fel moo nekkoon teeñ euh, néegam moo ko ñaanoon yàlla ba yàlla may ko soo ñëwee mu di la recevoir sooy waxtaan mu ne la gaawal de fukki minute ak juróom ndax wax wax farata du weesu fukki minute ak juróom luy tege ci fukki minute quinze minutes yi rek fel yi commencé di dugg ci sa yére yi mu ne la jógal ay mbindee fi yàlla lañ rek booy jóg ñu bàyyi la booy génn kër gi rek fel li bàyyi la waaw kon neex naa dégg sa ñaari ture boobu moo may Kumba Caam mi wérd mudir Abdou Aziz Touré la tudd Baye Abdou Aziz lañ koy wax mooy xalifa sëñ Haadi tey ku baax aywa yonent yàlla Moussa ñaan tee ñii dem Firawna yónni waat Haamaan ne ko demal ne ko njaber la woon rek waaye du tus neel musa du dara te maa ngi xaar ba ngeen gëm ko maa alimtukum min ilahin gayri xamaluma leen jenn yàlla judul man <laughs> maa alimtukum déet ma leen di xamal min ilahin jenn yàlla gayri judul man koo fi gëm keneen ku dut man ma rey la njaber dong la fi indi woon lii njaber la jeex na dem na yonent yàlla Muusaa muñaat quarante jours yëf yi gën naa si mu ne yàlla indiwaatal beneen bugal yàlla jox ko ay mbott wa dafa di wa dafa di ay mbott fees dell ci dëkk bi ba mu des ñi gëm yoon ci yàlla Moussa dañuy teg seen palaa bëgg a lekk sa mbott yi fees ci dell ñu tëjaat xiif di leen bëgg a rey firaw na yónneewaat ne leen dem leen ko ne mu jabaram ngi rëy na de suñu dimbalee ba lii jeex daañ ko gëm quarante jours lekkuñu ndax booy dank benn rek mbott yi ñëw fees dell ndab amul fooy dugg mën a lekk te mbott du la fa fekk fees fa mu ñaanaat yàlla teggi damay gaawal tuuti ñu demaat quarante jours mu féeteer luwaat yonent yàlla Moussa ne yàlla indil beneen mbugal mu indi deret danañ lekk waaye boo demee bay bëgg naan rek boo nee ca spot bi rek mu soppeeku deret ñu tuur te boo koy tuur mu nekk ndox sooy tuur mu nekk ndox boo nee cas mu nekk deret ñu ne yàlla lii moom ñu ne yonent yàlla Moussa bii nag moo gën a réyati nag ndax naan moom kenn mënu koo muñ aywa mu ñaanaat yàlla teggi boobu tis a ayatin juróom ñeenti kéemtaan indi na ko ci seen digganteeg ñoom taxul ñu gëm ñuy dem di dem ba yëf yi gën a métti nag aaya bii laay wax ne bokk na ci aaya yi nga xam ne mu gën a triste ci man ci alxuraan jàppatuma nag fu nekk ci ci ci alxuraan ji damay bañ a juum waaye saar bi laay bañ a juum waaye daal li gën a wóor aaya bii moo gën a triste ci man ci alxuraan ndax fi ko yonent yàlla Moussa waxe ak fi mu amee lim bëgg quarante la seetal lool ci ab yonent quarante ans quarante ans fi mu tàllalee loxo wax lii yàlla ak fi mbugal mu yegsee ni mu ko bëggee quarante la yow na nga bëgg ne yàlla léegi rek mu jox la léegi te wa kallama allahu musa takliman mu ne ko rabbana xool nga baatu rabbana la indi innaka aatayta firawna wa malaahu zinatan fi lxayaati dunia rabbana li yudillu ibadaka hmm? rabbana innaka aatayta firawna wa malaahu zinatan fi lxayaati dunia rabbana li yudillu ibadaka rabbana tmis ala wujuhihim wasdud ala qulubihim fala yuminu xatta yarawu aladaab al alim muy ñaan bu triste mu ne ko yàlla yaa ngi nii jox firawna lu dul jeex te billaay jamono bi am na ñoo xam ne dañu yor alal pour pour lu bon rek gor yi di souffrir gor yi di sonn ñu yor alal ju dul jeex di ŋaj ci deretu baadoolo yi hmm? suratu yunus waaw kañ rabbana innaka aatayta firawna wa mala'ahu zinatan fi lxayaati dunia rabbana li yudillu ibadaka rabbana tmis ala wujuhihim wasdud ala qulubihim fala yuminu xatta yarawu alcadab al alim mu ne ko yow suñu borom yow borom sama te mu ngi taxaw di ñaan Haaruna di yonanti ko moom naan amin yonti yàlla Musa di ñaan Haaruna naan amin yàlla ne ko qad ujibat da'watukuma waaye nag fastaqima wala tattabiaani sabilal mufsidin yàlla yàlla am patience ba yàlla àddu ne ko xat ca dëgg-dëgg balaa may ñëw ci boobu ma firi bale sax daf ko ne rabbanaa yow borom suñu maag Muusa maag Haaruna bii di la ñaan innaka naka yow yow yàlla innaka naka yow aatayta yaa jox firawna firawna mi wa malaahu ak ñi ko topp ñëpp zinatan taar zinatan bien zinatan ay immeuble zinatan ay château zinatan alal judul jeex rabbana yow suñu borom lii dillu ngir ne ñu sànk rek ibadaka sa jaam yi nga def ko ñuy sànk sa jaam yi ah waa wa amwalan waaw kañ bismillah zinatan wa amwalan waaw kañ fil xayaati kañ rabbana yow borom suñu innaka naka yow aatayta yaa jox firawna firawna wa malaahu ak mbooloom mii zinatan taaru taar mooy bien-être yaa leen ko jox wa am amwalan ak alal judut jeex ah rabbana yow borom suñu li yudillu ngir nañu sànk rek ibadaka sa jaam yi rabbana yow borom suñu wat mis effacel wat mis soppil ala wujuhihim seen xar kanam yi wasdud kastel ala qulubihim seen xol yi fala yuminu ba duñ la gëmati mukk xatta lu du rek yaraw nañu gis al azaba mbugal bu la neexee nga firee ko ci beneen contexte mooy bii ma wax yow daal suñu borom yaa jox firawna ak mbooloom alal ak bien-être bañ doyal te defoo ko gis nga ni ñoom ñu ngi réeral sa jaam ñi duñ la gëm mukk fekk gisuñ miracle suñ gisee miracle ne gëm nañ suñ gisee suñ gisul miracle bàyyi maa ngi lay ñaan yow yàlla muural ma seen bët kastel ma seen xol be boo leen di mbugal ëllëg duñ ko duñ gisati dëgg yàlla ne ko bismillah waaw kay jërëjëf Abdul Aziz rabbana innaka aatayta firawna wa malaahu ah zinatan wa amwalan xoolal kon nag ñun ñëpp leçon la pour ñun waaw kañ mhm. wa qaala Muusa waxaala wax na Muusa yonent yàlla Muusa rabbana yow borom suñu innaka naka yow tey yaa jox firawna firawna wa malaahu ak mbooloom zinatan bien netre du noonu lañ koy waxee waaw zinatan bien être mooy bien fii bien bu baax a baax a baax wa amwaalan ak alal fil xayaati dunya ci dundu àddina bii yaa leen ko jox bañ doyal rabbana yow suñu borom lii nga def na defoo ko xam naa lu lu tax rek lii du lu ngir nañu sànq an sabi na ñu wëññi waaw kañ an sabi li ko ci sa yoon wi ñu ngi taxaw ci sa digg yoon wi di wëññi gaa yi ndax seen alal jii ñu am ak bien-être bi ñu am te man ñi ma àndal amuñ luñ añee te man yaa ma yónni te ñi ma amuñu añ nga jël na jox ko loo xam ne xamul sax nu mu toll mu riche fii ci du àddina bi li yudillu ngir na sànq an sabilika wali sa yoon wi waaye waaye rabbana euh, courant moo coupé woon rek fi mu ne groupe la ñuy utiliser moo tax su ko defee ñu wey fi ñu toll woon kaay dimbali ma génneel ma ko ñu ngi jéggalu ju ci ñun courant moo coupé waaye ñu wéy fi ñu fi toll woon ci yoon ci Yàlla Muusa muy wax ni waxaala wax na Muusa yonent ci Yàlla Muusa rabbana yow borom suñu innaka naka yow aatayta yaa jox firawna firawna wa malaahu ak mbooloom zinatan taar bien-être wa amwalan ak alal fil xayaati dunya ci dundu àddina bi rabbanaa yow borom suñu li yudillu ngir ñu sànk an sabilika sa yoon wi rek be bëgg a jub sax ñu jënd la dévier la rabbanaa yow borom suñu at mis yal na nga masxu mooy yal na nga soppi ala amwalihim seen alal ji washdud yal na nga kaste ala qulubihim seen xol yi fala yuminu du be gëm xatta be yarawu ñu gis al azaba mbugal ma al alimu bu métti bi lii bi ko yonent yàlla Muusa di wax yoon ci yonent yàlla Haaroona ngi ci gannaawam naan amin amin amin fiñ ko ñaanee ak fi suñu borom waxee ne xadu ujibat ca dëgg-dëgg ujibat wuyu naa nangu naa daawatukuma seen ñaan yéen ñaar moo tax ci sunna ñu ne kii ñaan ak ki naan amin ñoo yem tiyaaba ca yàlla gis nga yàlla wax ko nangu naa sa ñaan yow Moussa daf ko ne nangu naa seen ñaan xad ca dëgg-dëgg ujibat nangu naa daawatukuma seen ñaan yéen ñaar waaye fastaqima sax leen di ma ñaan wala tattabiaani bu leen topp mukk sabilal sabilal mufsidina wala sabilal ladina laa yaalamuuna aywa ñuy dem ñaan ngi nangu na waaye taxul mu ñëw ci saasi fitna di gën a yokk lu ne yonent yàlla Moussa jéem na ko ci ñoom waaye Firawna bu jaaree fii rek Firawna jaar fale bem ne suñu borom nag mbir yi lu ci des jéem naa jéem waaye Firawna mii du koy jub dama lay ñaan yow mii maye may ma sankal ma Firawna ndax sa nit ñi mën a jub yépp ci ñaan gi la ko dëxëñ waaye ca quarantième année ba yàlla mën a yàlla am patience quarante ans laa de wax waxuma quarante jours de quarante ans ci diggante boobu nag am na yeneen yu fi am waaye bi yegsee bi mbugal mi yegsee Firawna ci boppam moo ko sabab ndax moo jékki-jékki ne innahum la sirzimatun qalilun wa innahum lana la ghaizuna hmm? ñii daal Moussa mii ak ñim àndal innahum naka ñoom la sirzimatun kuréel lañu xalilu na gu tuuti sous-estimé nit baaxul wa innahum naka ñoom ñii lanaa ñeel ñu ñun noble yi ñun fir man firaw na ak ñi ma la ghaizuna ñu ngi ñuy emmerdé léegi du ma def lu dul sànk ko rek moo ñi àndal dama koy rey ci la yàlla ne Moussa nag yoon ci yàlla Moussa ca génnal ñu génn ci guddi la amee nag quatre heures matin fekk lu lu ni jiitu bi yoon ci yàlla Moussa njëkkee laaj suñu borom daf ko ne lu tax firaw na mii alagoo ko ba tey mu ne ko ñaar ba ci ñett mu ne ko ban mu ne ko ku fonkoon ndeyam la du nelaw te ndeyam nelaw du lekk te ndeyam lekkut mu ne ko beneen bi ku fonk ñam la li muy doon doon buur dafa ormal ñam lu tuuru mu for ko en tant que buur mu ne ko beneen bi ci des biir pale bi dafa bind bismillahi rahmaani rahim mun moo moo tax jomb naa koo alagee ci pale bi bàyyil mu tàppaas la génn nga génn mu topp la ñett yi tax yàlla alageewu ko ci pale bi mu ne ko dafa fonkoon ndeyam balaa lekk ndeyam lekk balaa nelaw ndeyam nelaw ba pare mu ne ko beneen bi ci des dafa fonk ñam li muy doon doon buur buy lal buy lekk day lal nàpp lu tuuru mu for mu ne ko beneen bi ci des nag bés basmala bi mu bind bunti këram moo tax mënuma koo alal bàyyil mu tàppaas la ma wax la nga génn mu topp la ci la firaaw yàlla roof ci xolam nag mu gën a bew beew na ba noppi ndax ca la jékki-jékki ne ana rabbukumul aala léegi nag dama leen waxoon ne maa alimtukum min ilahin xayri xamaluma leen jenn yàlla ju dut man loolu kon dey mel ni am na beneen yàlla ju fi ne léegi nag maa ngi leen di yëgal ne yéen banu Israil maa ngi leen di xamal ne ana man firawna rabbukum may seen borom al ala ji féete kaw borom yépp yàlla ne ko a ah, yegg si nga nag fa axazahu mu jàpp ko nakaalal axirati wal ula yàlla ne jàpp naa ko nag ki wax ju mujj ji mu mujj wax ak ju njëkk jam njëkk a wax bu njëkk ba mu njëkk a wax mooy ma alimtukum min ilahin xayri bu mujj mi mooy ana rabbukumul aala mooy ci mbaxtal nga yàlla ne ma jàpp ko nag ci ñaari baat yooyu moo tax kuy wax boo yeboo li ngay wax nga xam ko de fa axaza mu jàpp ko fa ca saasa axaza mu jàpp ko allahu buur yàlla nakaalal axirati wax ju njëkk ja bu mujj bi wal ula ak bu njëkk ba yàlla roof ci xolam nag mbaw ci la waxe aaye bii may wax na innahum naka ñoom ñii la sirzimatun xolal waxin wi sax la sirzimatun benn kuréel lañ qaliluna bu tuuti wa innahum naka ñoom seen tuuti waay googu lanaa ñeel ñu ñun noobal yi man firaw naag ni ma toll nekk yàlla la xaaisuna ñu ngi may amer de bàyyil ma massacre leen ñu jeex dootu ñu figuré fen yàlla yoon ci yàlla Moussa bu la fi fajar xare entre trois heures quatre heures du matin na génn dina yëg ne génn nga dina la topp tey lay lekk ay fanam aywa trois heures firaw na takk ak armée bi mu am yëpp ci mennum yoon ci yàlla Moussa ak ña ko gëm yoon ci yàlla Moussa génn jubali benn dëkk bu nekk gannaaw misra waaye da ngay jéggi géej gi pour dem ci dëkk ba te amuñu gaal amuñu dara bi ñëwee nag ba ci ba génn dëkk bi nag ba ñëw ba ci buntu bay waaje yegsi ci ci ci géej gi muy baxaru xalsum mer rouge yonentu du geesu de gaa yi geesu mooy ragal yi mel ni Sidi Kunta geesu ne ko eh yow Moussa looy def yaa ngi taxaw di firaw naa nga ne di ñëw wa malaahu ak mbooloom wa innahum ñaka ñoom lanaa ñeel ñu ñun la mudrakuna dañ ñuy dab si de léegi ñu yegg si sàkkal pexe kii bu yegg si benn wayaas la def yoon ci yàlla Moussa tontu leen sax mu taxaw rek beñ wax ko ko ñetteelu yoon ba nga xam ne ñu ngi séen firaw na ba xàmmee ko ci kaw fasam xam nga koo xàmmee kon jege tut soree tut jege si na ba xàmmee firaw na ne mu nga nële haamaana nga nële diwa nga nële diwa nga nële ñu ne ko muusa waxal yaa ñu indi ba fii kii dana ñu dab de ci la yoon ci yàlla muusa nag ne inna rabbi maay sa yahdin borom baa ngi ànd ak man dina ma won fa ñuy jaar yàlla mën ndekete firawna jibril lañ ko topp te yëgu ko jibril lañ ko topp te yëgu ko seen fas yi ku daakut inna qaaruna kaana min qawmi muuse musa saamiri yu moom foofa la gisee woon te suufu moom laa waroon a njëkk mujje indi sax waaye dama ko njëkk a indi waaye moom laa waroon a mujje indi ci xissa parce que ba mu koy alak après Firawna la ci la gisee woon nag tànku fas wi lu mu romb rek mu jebbi comme moom Fira euh, euh, euh, Jibril la ko yar fala tibbee nag fa xabattu xabdatan min asari rasul waaye loolu passé woon nañ ko seen fas yi coude à bi ñëwee ba jub ko à peu près wala vingt mètres am na ñu ne sax cinquante mètres net la ci la ko yàlla wax na jëlal sa baax baxra dooy jëlal seeta bi nga dóor ci géej gi yoon ci yàlla Moussa mu ngi mu ngi yor yet wi mu ne ko jëlal sa yet woowu nga yor maa la ko defal muy kéemtaan dóor ko ci géer gi géej géej gi mu dóor xarut mu dóoraat xarut balaa muy doo troisième jibril déy ko ne ko sa borom nee na salli alal muxtaari jullil ci yonent biñ tànn te ñëwagut boo bëggee am yoon woo jaar mu ne allahuma salli ala sayidina muhammadin dóor mu xar fan falaqat mu xar isna fukki vol avoni ak ñaar douze av avoni la géej gi xotteeku mu ne gaa yi ñii jaar fi ñii jaar fii ñii jaar fii biñ demee ñoom bay jeexal géej gi na ñëw na ba tiim géej gi ne goos bii ni ma ko xamee nara lu ma yiw de géej lu ko def aboni du yiw xam nga xel mee rëy buur xel mi day rëy waaye xamuñ ne lu sa xel rëy rëy yàlla mi la bind moo la may xel dañ koy fàtte lu sa xel rëy rëy rëy yàlla mi la bind moo la may xel ñëw na ba tiim géej gi ñaa gars yi ne ko topp ko avenir yaa ngi nii mu ne def leen ndànk man mag laa te yàgg naa fi de goos bii maa ko yar xam naa ko de toroxal ma la naa ñu ne ko du la toroxal balaa ngaa yegg balaa géej gi di dajewaat bay dajewaat fekk fekk dal nga ci koom mu ne acca bismillah naka la ne yuntum ak fasam gars yi topp ci yàlla dafa mën stratégie yàlla bàyyi leen ñuy dem di dem ba gaayam yëpp jeex bañ nekk ci diggi géej gi mu ne yonent yàlla Moussa roccil sa yet fekk yonent yàlla Moussa mu ne ko tegal yet wi mu teg mu ne ko roccil mu rocci vague yi commencé di ñëw di leen fa fekk ñuy wallax ndeku ñii di jaar fële ñii di jaar fële ku bëgg a dem fële vague yi fekk la fa mbéj la nga delluwaat ba ba fasu firawna ak Seydina Jibril fas wi mu war ñu kudaakut ñoom ñaar aaye bii may nettali foofu la amee ci biir baxru xalsum Jibril ne ko firawna na mu mu ne ko ci naka soppee ko nit di wax moom Jibril mu ne ko naka mu ne ko ci naka mu ne ko tey fii ngay yem dangay lab mu ne ko man mu ne ah, mu ne ko sa bakkan fii la yem tey da ngay lab mu ne ko kon dinaa gëm yàlla balaa maa lab yàlla ne jibril su làmmiñam di yegg rek ma génne la ci sa koor kooru malaaka dootoo nekk dara soppil ma làmmiñ bi la yonent yàlla Muusa ñaanoon kon dégg nga ñaan gi bu baax lam ñaanoon ne wat mis wasdud wasdud boobu moo ñëwaat kastel seen xol fala yuminu ba duñ gëm xatta yarawul azab alim donte gis nañ mbugal mu métti mi duñ mën a tee gëm <laughs> ñaan nga yegsi na jibril ne ko tey doo fi gëmi xamoo firaw na naroon naa tuub bi mu bëggee tuub rek wax nañ ne jibril roof loxoom ci poto poto bi pour mbugalee ko ko ne ko watt ci gémmiñam mu tiit xamatul lu muy wax mu ne laa ilaha illa aman illa laa ilaha illa alladi amantu bihi banu israila laa ilaha déet benn buur bu yeyoo jaamu bi nga xamee ne nag ñu baal ñu courant moo ko rek te dañuy alterner group bi ak courant bi loolu moo tax waaye mën nañu dem waaw kañ ma def roy borom daara ji li muy wax ne ma demam waaw kañ su ko defee mu ne firawna jibril tibb ci potopoto bi rek dóor ci gémmiñ gi mu ne laa ilaha illa alladi amantu bihi amul benn buur bu ñu gëm bu dul buur bi waa banu israil gëm te moom la loolu du gëm yàlla di laa ilaha illa allah ji moom la dagg moom la ko firawna moom la ko jibril perturbé ba mu ko ndax moo noon ana rabbukumul aala du moom moo ne jenn yàlla amu fi du dul budul moom ba banu Israël gëm ko mu tebaat ne may yàlla ja ca combaxtal ga kon kañ boppam la gëm jibril ne ko waxagoo dara sa bopp nga gëm laa ilaha illa alladi amanat bihi banu Israël wa ana min al yàlla ne ko du tey al ana <laughs> yàlla mën a yàlla ni ko ah tey jii ngay toog ba mu yàgg nga naan da ngay tuub du fi amee yàlla ni ko mukk kon ci noonu la na nekk ci xarxarle xarxarle xarxarle ba Jibril labal ko ci biir géej gi ak ñi mu àndaloon ñépp génn nag fekk yonent yàlla Moussa bi mu demee fekk yonent yàlla Moussa gars yi dañoo gëmoon Firawna gëm boo xam ne pour ñoom Firawna deewut Firawna du dee ndax moo ne mooy yàlla du dee ñu ne muusa Firawna deewut de daa làqatu rek dañuy ragal dellu ca dëkk ba mu def ñu nim ñu daan def du ñu dem izhab anta wa rabbuka faqaatila inna haahuna qaa'iduuna <laughs> seetal kañ la Moussa di am jàmm ñu ne ko demuñu fen fii la ñuy toog yow nag boo amee looy def wéyal yàgg sa yàlla ji ngeen dem xeex ñun fii la ñuy toog seetal li ci tàng-tàng bi ñu ngi commencé waat di weddi te ña weddi woon labal nañ leen waaye ndekete am nañu des ci biiram ñoo xam ne gëmuñ woon dañ ragaloon Firawna waaye gëmuñ Muusa tey war nañu foog nañ ne léegi nag jekku nañ jekku boo xam ne war nañu doon na ñoom tey pour jógaat dalaat ci kaw yoon ci yàlla Moussa ñu ne ko izhab demal anta yow wa rabbuka ak sa borom fa qaatilaa ngeen xeex yéen ñaar inna ñun ñii haahuna fii qaa'iduuna la ñuy toog yoon ci yàlla Moussa ne leen baax na yàlla ne ko dinaa génnee firawna dañoo saalit rek dinaa génnee firawna pour ñu xam ne deena keroog la géej commencé di gëq nit xamuloo yàlla ne ko al ma bési tey nu najjiika danaa génnee sa sa yaram badanaka badanika du muccal de hmm, boo nee muccal rek day mel ni mucc na ci mbugalum yàlla déedéet al ma bésu tey nu najjiika bi badanika danaa génnee sa yaram wi ci biti li na ngir nga nekk li man xalfaka ñay ñëwi ëllëg sa ginnaaw aayatan ngay kéemtaan ci ñoom moo tax ba léegi boo demee Égypte boo nee Moussa bu na rek ñu woon la ko ci jamono euh, Mitterrand lañ ko jëlee woon Égypte indi ko France pour xoolaat yaram wi déedéet dañ doon xool est-ce que liñ wax ne alquran dafa ne na dafa lab est-ce que dëgg la wala du dëgg man maa ngi documentaire bi ñu jëlee ko Égypte indi ko France avion spécial médecin yi téye ko fa pendant une semaine def seen gëstu yëpp ba trouvé ne effectivement dafa lab ci ndox ñu defaraat ko ak momi momi boobu ñu ko defaroon delloowaat ko Égypte yëpp maa ngi film bi ma ne yàlla ñoom ñooy fen waaye yàlla du fen mukk waaw yàlla du fen mukk ci jamono François Mitterrand loolu yàggut kon naa ngoog yàlla labal na ko ca baxru xalsuum mu yem fa des fa ak ña ko gëmoon muccal na yonent yàlla Muusa ak ñam àndal waaye am na ñeneen ñu judd ñu fettiirul ba osé na ko demal ak sa borom ngeen xeex waaye ñun fii lañuy toog ña fettirlu nag ña fettirlu woon qaaruun ca la bokk inna qaaruuna kaana min qawmi muusa fa baxi alayhim ca la bokkoon balaam ibnu baawara ca la bokkoon ak yeneeni ponkal yoo xam ne gannaaw yonent yàlla muusa bi mu labalee na ba pare ñoom dañoo taxawaat nag bëgg a doon firawna ma tënk ñu jeexal dans dix minutes bii di ñëw nag ñu yeggali xissa bi complètement jaar nag ci nañ ko diggee woon maami yonent yàlla Moussa yi bañ jeex bañ xam ne moom it ñu ko jur ñépp ay garmi lañ maanaam ñi ko jur ñëpp ku ci dul yonent mina sulaha ci ñu yiw ñu yàlla gërëm ci jamono booba ca la bokkoon ma jël benn xissa jeexale ko pour woyefal waxtaanu ajjuma bi biñ génnee nag léegi mu des fonkal moo xam ne moo ko gënoona a sonal ñu koy wax xaaruun xaaruun bii may wax te xaaruun bii tamit doomu ndeyam la seen ñaari ndey yee bokk ndey baay moom dafa gis bés yonti yàlla Muusa am bàmmeelu yonent bu mu doon seet am nañu ne yonent yàlla Yuusuf la am benn jigéen bu ko ne bàmmeel ba fa mu waroon a nekk baxaru xalsum nangu na ko maanaam géej gi nangu na ko man daal fekkee naa yonent yàlla yunus yonent yàlla yusuf waaye daal bàmmeel ba la may natt natt fa mu war a nekk daal ah géej war na ko lekk yonent yàlla Moussa ànd ak xaaroona bii boobu mu ngi ci biir mbooloom di gëm-gëm lu ndekete gëmut kër sëriñ boo fi gis nag am na taalibe bu mel noonu kër sëriñ boo fi gis am na taalibe bu mel noonu di gëm-gëm lu fekk gëmut dara di yaru yaru lu fekk day yeeru di yaru yaru lu fekk day yeeru buy yekku rek dem yoon mu ànd moom ak taalibim bi ñuy wax Yuusa ñu dem ngir mu jàppale ñu jàppale ko ak ak uh, uh, frère am Haaruna pour ñu dem génnee ji bàmmeel bi biñ demee ba nat xam ne géej gaa ngi fa toll mu bind ismillaahil azamil kabir moom yoon ci yàlla Moussa géej gi rekkile ndeke ba mu koy bind xaaroon na gis na ko ba capté ko ñoom ñëpp a ko gis ndax yoon ci yàlla Moussa ku am ci yow confiance ànd ak yow bay def du la nëbb ña ca des ñëpp xam nañ waaye dañoo maandu moom mu xam nag te maanduwut mu sàcc tur wi bi yoon ci yàlla Moussa bindee tur wi ne géej rekkileel ci barke tur wi géej gi di rekkile muy dox ba fiñ ko wax ne muy sulli bàmmeel bi ànd ñoom yóbbu ko bani yóbbu ko Israël baytil baytil maqdis am na ñu wax loolu moom mii nag ba ba ñibbee rek mu ne ah tur wu toxal géej man am naa ci beneen soxla mu dem ba ca diggi àll ba toog bind tur wi ne fu or mën na nekk ci kuuru kaara bi génnal ñëw or bi naan baj baj baj baj baj baj di ñëw mu ne ah kon léegi am na recherche man na naa jël ci lam soxla dugg ci dëkk bi jaay ñi mën a jaay jën ñu naan xaaroona xaaroon xaaroon xaaroon xaaroon coow li kur muy jaay di tabax yi pale mujj gi mujj yi tëgg ay mbubb di sol yàlla di seetaan rek alal ji ne gàññi ci ko am kenn xamut ba yàlla wax ko ci alquran inna qaaruna kaana min qawmi musa mooy aaya boobu may wax inna qaaruna naka qaaruna kaana nekk na te bokkoon min qawmi musa ci nit yonent yàlla musa yi fa baxay alayhim waaye dafa beew nag ci ñoom maa inna mafatixahu la tanuu bil usbati ulil quwa mu ne caabi yim daan yor ñu tëj alalam muy ay magasin yu dul jeex boo ko yenoon fukki ponkal ak ñaar àttanuñ ko am na ñu ne fukki sëfi gëlëm ak ñaar mënuñoo jeexal caabi yi is jamono ba nga xamee ne xaala wax na lahu ñel ko xawmuhu nitam ya la tafrax bul bég inna allah bul bul puugaréwu laa tafrax bul tiitaru inna allaha naka buur yàlla laa yuhibbu soppul bëggul na ñiy tiitaru maanaam di tiitaru ci kaw ñi amut wabtaxi waay waay sàkkul fii ma aataaka allahu ci lii la la yàlla jox daaral laaxirati bés bañ ci ëllëg wala tansa bul fàtte mukk nasibaka sa cër bii la yàlla jox mina duniya ci àddina waaye bul fàtte yàlla tamit waaye moom it bew te dugg ko mu ne ma mu ne innama utituhu ala ilmi yàlla joxuma ko sama xam-xam moo ma ko jox tontu ko ay nitam mu jigi bu ne tell aktar taar bi mu yor ak yi mu sol ñu ne yàlla itala naa misla xaaroon a ah, waay waay yellante woon ñu mel ni xaaroon mbubbi or dem na ba mbubbi or lay sol bu génnee ñëpp topp waaye mu gis ne succès bi yonent yàlla Moussa am malgré yonent yàlla Moussa yorul alal yu ne gàññe te moom mu ngi yor lu ne gàññe succès bi yonent yàlla Moussa am amu ko mu def rival muy rivalanteeg yonent yàlla Moussa ba mu woo benn jigéen foofu lay jeexale bi wooyee jigéen bi mu ñëw jigéen ju rafet soxna su rafet toll ci fukki at ak juróom-ñett dix huit ans dix neuf ans mu ne ko dama bëgg nga wax ma boo bëggee génn ci pauvreté yaag sa famille du xam nga ma mu ne ko waaw mu ne ko loo bëgg ci alal wax ma lenn rek laa bëgg lenn mu ne ko lan la mu ne ko loo bëgg ci alal rek wax ma ma jox la lenn rek laa soxla mu ne ko lan la mu ne ko damay woote cérémonie bu mag ca cérémonie officielle ba nag dinaa invité yonent yàlla Moussa ak ñim àndal pour ñu ñëw bu ñëwee lenn rek laa lay doye loo bëgg ma jox la su ñëwee ci invitation bi ba toog dama ko naan yow Moussa nit ñaa ngi nii topp la te njaalokat nga xale bu jigéen bii nee na yaa koy yaa koy tëdde guddi ak bëccëg suba ngoon ba yaa ko biiral ndax dégg nga wax bi xoolal wax bu ñaawee noonu xale bi ne ko d'accord na mu tëgg mu cérémonie woo ñëpp ñëpp daje mu invité yonent yàlla Moussa yonent yàlla Moussa ñëw toog ba commencé di jëfandiku xam nga yonent ñoom ñëpp a yem dañ ne ku la invité demal ndax bokk na ci tiyaaba yi yàlla gën a gën a gërëm mooy invitation sa xarit bu la invité pour euh, diine wala lu mën a doon nga dem bi mu yegsee toog beñ toog à table commencé waxtaan xaaru na piis ndaw si ne ko jógal ndaw si jóg mën a déglu leen li kii di wax am na solo déglu leen ko Moussa mii ko def yéen a ngi nii topp ci kawam te du nitu dara jigéen ñi rek la fi nekkee xale bii moo ko tëddee bam bam ëmb yow jógal wax du dëgg ndaw si jóg taxaw rek yàlla soppi làmmiñ wa gis nga lam ñaanoon kon am na ñaan nga aha wat mis ala amwalihim wasdud ala qulubihim ndaw si jóg taxaw xool xool xool ba mu yàgg ne ko dëgg dëgg nag li nga ma bëgg a wax loo amul li ma bëgg a wax mu ne ko amul Moussa ne ko lan la la bëgg a wax loo mu ne ko daf maa fayoon alal ju bari waaye alal ji li muy bari bari bés ni tey suur naa ko waaye yow mi ku la xool xam ne doo jëfkati lu ñaaw daf ma fayoon alal ju dul jeex nag pour ma taqal la ne yaa njaaloog man yaa ma ëmbal waaye géñ naa ci yàlla tey laa lay door a gis yow Moussa xawma la ba di bég may ëmbal mosuma laa gis yow Moussa guleet tey tey tey maa ngi door a teg sama bët bi ci yow man de amantu bi gëm naa la man bokk ma mukk ci complot te duma bokk ci complot bi mukk alal jum ma mënoon a fay nag suur naa ko man de gëm naa ne yàlla la yónni xamuma la taqoo ci man taasoo ci man joteewu maag yow dara masuma seq ak yow lenn koy seqal sax day fekk nga xam ko wala nga gis ko man de maa ngi lay door a gis tey kii nag moo ma ko sant muy xaaroona rek yoon ci yàlla Moussa mer dal di ne képp koo xam ne teraanga nga bëgg ànd ak xaaroon metre à côté de xaaroon demal nga nekk ci côté xaaroon xaaroona demal xaaroona bi bi xaaf xaaru haaruna bi ànd ak moom bi haa kabir dañ ñiroote bokkuñ kii xa xa xaaruun kii haaruun haaruna mooy yonent comme moom xaaruun doomi ndeyam la frère la moom waaye daf ko weddi ci diggante bi gaa yëpp randu gis nga foofu dinaa fi taxaw gis nga ba boo amee mbooloo wala nga nekk responsable yaa xam sëriñ nga wala président de la république wala ab ministre wala DG wala maire gars yi di la jey di la jey di la jey di la jey ba dara desul lu dul nga dugg ndung siin ñoom ñëppay wëññeeku yow ci ndung nag yaa fay des warkat yi commencé nag ñi seeti feneen fu tooy ñu takk fa ah gars yëpp rekile mu ne leen yéen yéen a fi doon wax yaa layta lana la haaruna yellante woon ñu may mel ni Haaruna innahu la zu xazin arim adim borom cër bu rëy la gaa yëpp évacué wu jógee ci côté am ñëpp jógee ci côté ñëw ci côté ci yàlla yoon ci yàlla Moussa ne yàlla may ma suuf nekk ci sama ndigal mu ne ko jox naa la ko mu ne ko suuf wannal ma Haaruna ci boppam ñu jékki-jékki rek mu def tremblement de terre ci côté te ñoom seen côté dara xewul xaaru na commencé di surux xoolal la daroon suraaxata ca yonant bi ak li dal xaaroo na ci yonant yàlla Moussa xam nga ne du benn bi mu demee ba yegsi ci oom yi bi ko suuf onnee ba ci oom yi mu ne ko Moussa may ma ya yonant yàlla Moussa ne suuf taxawal mu taxaw mu ne ko lan la mu ne ko dama juum rek waaye sama doomu ndey ji baal ma mu ne ko suuf continuer sa liggéey suuf won na ko ba ci ndigg mu ne ko Moussa baal ma ma gëm la mu ne ko suuf continuer sa liggéey suuf continuer ba ci baat bi fii des nga xam ne lii rek a des mu ne ko yow sama doomu ndey ji seetal ci li ñu bokk yow te nga baal ma mu ne suuf boo deful li ma la sant man ci sama bopp yàlla may ma mbugal may doole ma mbugal la yow suuf suuf wan na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na keroog ba ko suuf wannee ba bés penc di taxaw chaque jour bër bu set suuf dina ko wan na lu toll ni taxawaayu doomu aadama te du tax mu jot juróom suuf mbugal di ko fa fekk en plus seetal ba ko suuf wannee ba tey yonent bi sallallahu alayhi nee na mbugal mi ko yàlla di mbugal chaque jour dana ko won lu toll ni taxawaayu doomu aadama taxawaayu nit ba bés penc nag mu ànd door a dekkee si bés penc terewul fa la ko mbugal di fekk tous les jours bi ko suuf wonnee ba pare alaaji ma lay nit a saay-saay xam nga lu ñu wax moo alal ji dong nga la bëggoon a jël ñi àndoon nag moom kat commencé naan waaye yow soxor rek alal ji dong la bëgg a jël gis na oor yi gis na batiment yi gis na nangam gis na nangam yëpp fi ne nii waaw léegi rey na ko xool leen mooy jël alal ji de yoon ci yàlla Moussa dégg ko ne yàlla lépp lu xaaroon na amoon ak fu ko amee woon rek na ko suuf wan na xam ne soxlawuma alalam lépp lu xaaroon amoon ak fu ko amee na ko suuf wan na suuf commencé di màbbal ay immeuble am fu bieyam nekkoon rek suuf suuf pëtaxal ko mbokki jullit yi mucc am na la ma Cerno Bachiru mun daaxa waxoon Cheikh Al Hadj Omar mu ne ma su la naan ñaanaloon sa noon yi jeexit da ngay sonn rek ndax noon bu dee beneen ñëw mu ne bàyyil ma ñaanal la la Cerno Seydou Nourou ñaanaloon ma Cerno Bachiru Muntaga daaxa Cheikh Omar moom ma ko wax fii ci Wakam ci këram mu ne ma su la ñaanaloon sa noon yi dee balaa ëllëg yeneen noon juddu mu ne dama ñëw bés ci Cerno Seydou Nourou ne ko baabam noonu yi bari na ña ñaanal ma nee na mu ne Cerno Seydu Nuuru ne ko Basiiru na mu ne ko yal na sa noon yi yokku yal na ñu bari lool nee na ma jaaxle mu ne ko ah baaba man de lii indiwuma won dama bëggoon nga ñaanal ma ci noon yi rek ne ko Basiiru noon yi bu bu dee beneen ñëw bàyyil ma ñaanal la buñ la mënal dara waaye noon bu dee rek beneen mu ñëw mu ne may loolu laa lay ñaanal yàlla yàlla na noon yi bari waaye yàlla buñ la mënal dara yoon ci yàlla Moussa xam nga ne kii bu coono doon am sonn na léegi xaaroo na lap na ci suuf moom it minhum man aghraqna wa minhum man xashafna bihi al ard wa minhum yàlla mën a wax arsal na riyaaxa yàlla ne am na ñoo xam ne ba ma leen di alak ngelaw laa yebal am na ñoo xam ne ba ma leen di alag dafa géejee leen wann comme firawna am na ñoo xam ne suuf a leen wann comme xaaroon mu ne man yàlla nu ma neex mbugalee nit kii dem na waaye waxtaan bii di ñëw di nga gis ñeneen ñi judduwaat taxawaat defaat faas yonent yàlla Moussa bébim desee nag moom dong ak frère am ak taalibeem bi ñuy wax Yuusa ak kuréel bu tuuti ba leen gëm ñoo desoon mujj des ci kaw suuf foofu lañuy jeexale ji wax ji waxtaan bii di ñëw moo xaaroon na ku njëkk a ku njëkk a gaañu ak bi xaaroon gaañoo digganteem ak xaaroon ñaata at la yonti yàlla Musaa door koo fekk bi ko fekki jee yan dënkaana la dënkoon taalibeem bi ñuy wax Yusha ba Yusha moomu nag moo dajeek waliyu Qadir looloo taxoon ma ne dama koy jeexalee ca grande muraille de Chine pour nit ñi xam ne fa ma téye woon ca njëlbeen foofu laa téye ba tey ndax grande muraille de Chine boobu wali yu xadir daf ci participer ok ndax wali yu xadir ba léegi mu ngi dund waaw te du dee mukk moom ñi dul dee ci la bokk moom wali yu xadir dafa participer ci miir ba te waliyu xadir boobu nag yusha bii may wax doon taalibe yonent yàlla Muusa daan ko téyel mbuusam moo présenté yonent yàlla Muusa yonent yàlla Muusa moo ko présenté waliyu xadir ci histoire boobu la ñuy dugg si fan la ko fekk nu mu ko ko présenté kañ ban diir lañ ànd ñaata diir lañ ànd kañ lañ tàqali ko ba kenn ku nekk dem incha allahu ajjuma bii di ñëw ñu dugg si ci ak yéen jeexal na xisa yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam pour wan nit ñi ne rek laa ci jublu àddina bii ku fi nekk foog nga sonn àddina bii ku fi nekk foog nga dégg lu neex ak lu naqari yu neex yi ngay muñee yu naqari yi rek yu neex yi ngay muñee yu naqari yi yu rafet yi ngay muñee yu ñaaw yi li la yàlla defal ngay muñee li la nit ñi di def lii rek la lii la yàlla defal ngay muñee li la nit ñi di def yu naqari yi nga muñee ko yu neex yi te xam ne noo mën a mel am na koo tane noo mën a mel nag ci kaw suuf am na koo tane noo mën a mel it am na koo xam ne mu nga naan yàllante woon ma mel ni oustaz Camara yaa laytana naa mis la xaaroona du fi jóg mukk waaw du fi jóg mukk kenn ku ne xaaroonam ci jàmbur nga rek waaw am na ñoo xam ne bu ñu amoon li nga am daw ba fat te yow yaa ngi xeeb li nga am kon ku ne cent pour cent nga am li alaaji Moustapha Guèye mu baax mii di wax yal na yàlla dolli guddal fanam bu bay bu cheikh al islam alaaji Ibrahima Niass moo ko daan wax moo daan wax ne nit a xamut li ko yàlla defal waaye ku ne cent pour cent nga am ah, ki xëy yeewu amul benn dërëm bu mu def ndikki cent pour cent la am yaakaarul añ reer moom waxe noppi li muy ñàkk ñakk ñàkk cent pour cent la am kooku mën naa jóg dem doxi dem poor lijjanti ba am lum lekk waaye am na koo xam ne mu ngi ca seize seize lant te manqué wu dara kooku boo ko doon jox ma milliard te jóg ci sa fauteuil roulant boobu mu jox la ko te yow yaa ngi cetang cetangi di dem di ñëw ah noonu nga koy toppee nag toppee ko noonu ku ne cent pour cent nga am te yàlla du tooñ wa ma rabbuka bi zallamin lil abid yàlla ne du ma tooñ mukk sama jaam lu ma def ci moom rek moo valable lu ko dal rek moo valable waaye man yàlla du ma tooñ mënee naa nu ne ba des tooñ kon nag ñiñ wattande ku ñun ci suñ bopp di tooñante problème bi ci ñun la waaye du ci yàlla kon nag yal nañu yàlla defal sutura yal nañu yàlla may ñu teewee déwén yàlla bu ko kenn wute in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu